bonsoir chers téléspectateurs de la TFM ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci jàmm ci biir seen émission euh, Kakatar Kakatar nag nee naa leen l'émission elle n'est plus à présenter xam ngeen ne euh, tous les quinze jours dañuy fas yéene ñëw fii bégal leen indil leen thème teg ko ci kaw table bi fas yéene koo waxtaanee. comme à l'accoutumée les avis seront partagés ñi dinañ aw gauche ñi aw droite euh, mais c'est dans le souci de bien faire rek comme ni ngeen ko xamee ñun dañuy sànni sujet bi rek li si des yéen ngeen yeggale ko seen kër donc ñu ngi nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi Facebook euh, Twitter YouTube vraiment ñu ngi nuyu ñëpp Instagram fàttewuñu kenn euh, gis nañ retour yi vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci li nga xamante ne mooy teewlu bi ngeen di teewlu émission Kakatar bienvenue alors xam ngeen ne nag du ci wet benn yoon émission bi nag Euh, tey dafa ala daw me lu tax mu ala daw me ci kanam tuuti dinañ ci ñëw li may def nag mooy damay ndoyu ndooy rek nga xamante ne euh, mu ngi toog nii def koppateem bu ñuul <laughs> def jaune noir ci loo ne waaw sant bu baax euh, namu naal de waaye la raw foofu waaye maa la raw di ziar sama xarit yi nekk ci plateau bi yëpp surtout Ndéla ak <laughs> Modou Gueye mi nga xam ne bi ma ñëwee ba léegi mi ngi may attaqué. Séri Kok waaw sama xarit la waaye gis naa ni daal moom daf moo doon ndax. ak Alima di jaar ñiy seetaan ñëpp surtout ñi ci Facebook bi ñoom am nañ solo bu baax a baax mm. ñi leen di ñi ngi leen di ziar bu baax a baax mm. yàlla na jàmm yàgg macha allah macha allah Ndoye alors bu ñu paree ci Ndoye nag dañuy jaal ci ki nga xamante ne nag kooku mooy gëla gëla nee na moom dafa jël brassard bi rek jongama 4 bu sax 2 point 0 4 mm-hmm. point 0 laa ko mm-hmm. yóbbu mm-hmm. Alima ci loolu ne li la yàlla dogal maa ngi sant yàlla moom lay baax na de ni ma def tey ah seen nga ma kon bu baax. ah tamit kon yaa ngi gis arrête de faire genre. non mais de faire genre te damaa def jongoma damaa gën a labbali sama jongoma nee naa leen brassard bi maay ki koy takk. Hmm. Ah, moom laa leen waxoon bii paase. Hmm. maay takk brassard bi dama koy gën a labbali gën koo dëgëral. ëpp na xanaa kontaan nga. bég naa ci xam naa loolu may def yi dalay neex <laughs> asalaamaaleykum yéen ñi ñuy seetaan euh, fu ngeen mënti toog rek ñu fekk leen fa nuyu leen ziar leen nuyu leen bu baax a baax di wax rek euh, ñuy ñaan yàlla rek suñu jotaay ñu euh, tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ba tax na fu ngeen mënti nekk ci kër yi ci saal yi wala ngeen téye ko rek ci facebook beeg réseaux sociaux yëpp ñu fekk leen fa ziar leen nuyu leen di leen wax rek doomu Tambacounda bi yegg si na maa ngi ziar ñëpp macha allah macha allah Alima euh, sañse bi rafet na. alors bu ñu paree ci Alima nag dañuy jaal ci ki nga xamante ne mooy Ndo nee naa leen Ndo nag ah mi ngi ci saison toog def grand boubam <laughs> def petit tetam fas kanamam fas yéene defanteeg Modou Gueye Ndo ci loo ne. waaw waaw maa ngi leen nuy maa ngi wax asalaamaaleykum ah bisimilah rahmaani rahiim ñu ngi commencé ci bisimilah yeggale ci alhamdulilah rabbil alamin di leen nuyu yéen ñi toog ci plateau bi yëpp di nuy tam ñi nga xam ne ñoo ne ci bi. Mm-hmm. ah di ci kër yi ñi ci saal yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu tubarkalla di leen wax bisimilah rahmaani rahim commencé ti nañ nag ci kàkkatar tubarkalla yéen ñëpp maa ngi leen nuyu baax baax. macha allah macha am na solo alors euh, comme ni ngeen ko xamee ah. ah mu ne mu ne non yow xam nga yow say sañse man. yéen yéen dégg seen sañse daf may daaneel xam nga sànq bi nga ñëw dama la ndóol tax waxoon ma def grand boubou. non bii di ñëw di nga def grand boubou tubarkalla. ah masata mi ngi fi. d'accord mais ndóol tey jaune waaw day toj waaw day toj sañ si day toj waaw. da nga tas yaakaar bi ci suuf te tamit ki nu wootee dafa jar ma sol lii. macha allah tey da nga def yu fi ndaanaan. bilaay wala sama yëfa nag. waaw da nga ko sa yëf la da nga ko sa la. c'est le sang sa yaay daf la dàmp sama yaay waaw sama yaay nag waaw travail de maman nag aramin fari kare ma ca ngent nde mbay seen jaba mi ci Podor. du bi ci ndar ak jaaji mi ci ceeb bi daan dikk ak maye saa ñaan moom dong waaw loolu neex na sama papa sama yaay la. ayca <laughs> jeex na jërëjëf Pendo alors comme ni ngeen ko xamee à chaque fois Kakatar nag dañuy am euh, vraiment invité bu nga xamante ne mooy ñëw bu waxtaanee nag ba yëf kii ba tàng ah ñu calmer waaw dalal leen dalal leen xam nga ñii mënuma dara ci ñoom. ñu yëngal suñuy def ci plateau bi ñu yëngal tout suñuy mbagg. alors tey nag ki nga xamante ne moom lañu leen indil euh, ci plateau bi je pense que il n'est plus à Sénégal àddina ñëpp xam nañ ko muy ndaanaan bu mag ah. kooku nag du kenn ku dul Assane Bouba Dialy donc tey nag euh, moom ngeen am euh, comme artiste ci biir euh, plateau Kakatar Assane ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm nam nañ la gëj nañ la gis nag di la bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi rek. waaw jërëjëf yaa Awa maa ngi nuyu ñëpp di nuyu téléspectateurs yëpp ñu seetaan ñëpp ci àdduna ñu leen nuyu di nuyu ñu ma ñi nekk ci plateau bi ñëpp nag. Euh, di am tam mbégte ci invité bi ñu ma invité tey. Mhm. di nuyu sama xarit Abdou Diop ak waa orchestre ma àndal. macha allah macha allah am na solo jërëjëf xam naa di dañ ñëwaat ci yow nag ci kanam tuuti ndax foog ñu yëngal mbagg yi tuuti yëngatu dellu démb def yëfi ndaanaan rek. Mhm. alors bu ñu paree ci Assane nag euh, suñu invité nag dañ ko fi invité woon mu ñëw yëfi daal di neex sénégalais yi réclamé waat ko ñu indi waat ko. kooku nag nee naa leen fu mu toog moom du sedd ah la lion laa ko tuddee ndee la ñu ngi lay nuyu di la yow sax duñ la dalal ndax fii sa kër la vraiment émission bi sa émission la ah, jeex na wane nga ko ñu ngi lay nuyu vraiment di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi maa ngi leen di fay kontaan naa ñëw si sa émission Kakatar mhm, donc euh, di euh, nuyu tamit Youssou Ndour mhm. fii tey moom fii tey ñëpp la moom léegi man moom fa laa kakal rek jeex na voilà vraiment tax na nag réseaux sociaux yi gën a feeñ. Mhm. YouTube yi ak Facebook yi ku ko xamul woon xam nga ko léegi. dëgg la voilà donc euh, di nuyu Ndoye Bane di nuyu euh, Alima Alima moom Alima moom moom no stress la moom. <laughs> alal dara yëgul dara ci yaram bi. Alima no stress je je l'adore. elle est elle est non stress. <laughs> Euh. donc maa ngi nuyu Penda Penda Guissé. mu nekk sama xarit bu baax waaye. Mhm. di nuyu Assane Boub. géej naa ko gis. Hmm. ah nekk artiste bu bu am xorom. Hmm. Ah, di nuyu moo Guèye. moo Modou Guèye ah, defe tey moom sama xarit lay doon. déet déet déet leer a leer bëgguma loolu la jàpp ci rek bëgguma loolu. yaa ngi moom dafa ñëw rek ñu def tout noir. waaw ah, tey kay copier ñun waaw bi. donc Ndella su lay waxal sa yu baax sa nga war a bàyyi sa kanam gi tuuti. arrêté ndox fa mu daan jaar lay aw. baadu <laughs> dafa nekk rek dafa sama doom bu baax nag. ndeysaan waaw sama doom bu <laughs> eh, boo xamoon nekk sama doom bu baax ndeysaan. waa Kakatar moom. Kakataru sénégalais yëpp la. wallaay dëgg la ah donc euh, vraiment kontaan naa trop. Mhm. ñëwaat 15 euh, jours après. Mhm. Ah, dafa dafay wane lu bari. Mhm. parce que su ma safuloon gars yi du ma dellu si waat. xorom nga ci Sénégal waaw ndeelu Sénégal laa <laughs> te mu nekk si temu sëy mhm. ah, toujours si temu sëy mu nekk loo xam ne am na solo. dafa nekk nga dama ubbi agence matrimoniale bu bees. ah, ah. tuddee ko 77 740. waaw 30 07. agence eh. matrimoniale de Ndera Madior. ah kenn du foto kenn du wone foto ok non da nga may envoyé directement après ma defal la nga ma ñëw nga def euh, sa entretien. après dinaa xam kan laa lay may. si sutura. yéen eh ñun duñ dem inscrire wala. Aïssata adhéré <laughs> connexion lay créé connexion répétel parce que Pendo nee na fa mu toog déggul. Euh, Pendo adhéré adhéré agence matrimoniale 77 740 30 07. mooy lan mooy numéro agence matrimoniale bi. Ah, WhatsApp daal ngay envoyé sa photo man nga koy envoyé directement. mooy sama numéro personnel. waa jëkkër ji mën naa xam maay takk sëy fexe ba sëy du tas. Ndéla eh. Ndéla maa ngay déglu. nee dama comme damay adhéré. waaw <laughs> loo bëgg xam ndax damay indaale samay critères. waaw ndax man mën naa la wax yow critères yi ma bëgg. waaw ni ma ko bëggee face à face rek dangay ñëw jàkkaarloog man pour ñi nga xam ne ah. ñu ngi Sénégal. ah ñi ñu ngi hors du pays. naa léegi bind ma bind ma. <laughs> yaa yaa waxtaan ak ñoom. adhéré naa te adhéré naa juróomi nit yi nekk sama <laughs> gis. 150 personnes de en espace de de 7 de temps. ah incha allah ñoo dugg. 100 150 eh. personnes waaw. chaque seconde réew mi ndekk ñi lamb bari na. non jigéen ñi dañoo lamb nag. en fait c'est la góor ñi fi gën a lamb arrêté am macha allah da nga am kersa donc il faut lool lool lool dinañ ci gën a xuus ci ndax ndeela li muy wax ni am na solo man maa ngi ca biir man man musuma dugg man new ma ci biir man <laughs> man new ma ci biir musuma ci biir mais attention man nekkuma ci biir arrêté leen am jëkkër yomb na mais am jëkkër ju mel ni ndoy jëkkër bu baax rek ju man moo jafe jëkkër bu baax rek te ñun dañuy yar suñuy jabar yi de ah oui day daam séance de coaching waa léegi damay lu gouvernement bi di xaar pour fal ministre de la culture et l'enfant et jigéen ñi. Ah, ah. yooyu yëpp nga bëgg mu boole ko ci benn minute d'enfant ay jigéen ñi jeex na ci kanam dinañ ko gën a yaatal. <laughs> alors euh, di remercier Ndella vraiment ci disponibilité bi bu ñu paree ci Ndella nag. Mhm. Alima looy ree. ah ah. ah. <laughs> noo ko waxoon bële paase loo làkkoon. Ndabaro Banta. Ndabaro Banta. ma <laughs> ne sama xarit. Eh? sama eh. chéri koko. Eh. daf may daaneel. loolu moom nañ ko nangu jiiñ nañ lu ne. waaye man maa la bëgg man sama bopp. waaw. waaw maa la bëgg. pes bi di ma daane ñu ne déetawaay tey mu def ci benn ree ci côté bi. mu feccal la ah. mu feccal ma salsa fii sànq. du salsa. lan la disco loolu mooy disco. disco ayama disco dansé. Michael Jackson moo ko doon fecc ay. quatre-vingt-deux gis nga mu fecc ci sànq. disco la fecc. j'adore quelque part loolu jéego ko rek. waa Modou Gueye dafa noir tey yaa problème daal. ah Modou tey sañ sañ seeti nga sax. y' a problème. asalaamualeykum. Eh. salaam. bu wee. bu wee bu ma damay bàyyi. Euh. bu lii lan la. yow kii ba mu ñëwee rek def noir am tey nga war a xam ne dara du baax. kii day def weex di def musiba ñëw kon maanaam saison bi dafa jeex pare nga ci weex bi nii. dugg nga ci black bi. léegi léegi black bi ci fan lay démarrer ak ba fan lay yem. C'est du 1er décembre oui. Eh. au 28 ou février. par deux mois. man lii tax ma bëgg ko. Ah, par trois mois trois mois. trois mois. lu weex trois mois yi lu ko ñuul. neuf mois neuf mois weex. ok. <coughs> décembre bu février kay du neuf mois wala du février la. nee trois lay def ak neuf. ah ok. ok jërëjëf jërëjëf. baax na. jërëjëf alamun demaa la nee nag gis nga nag tey li nga solo bi laay daf ma daaneel ah depuis ñu commencé émission boobu tey moom li nga solo moom tu trouves si pourtant fi nga génn baax na de <laughs> man ne mbëggeel bii di juddoo ci émission bi gis nga nag Alima da ngay bàyyi li nga da ngay arrêté ban mbëggeel moo fi juddu <laughs> ah. yow ñu neexal émission bi rek nga naan neex ak mbëggeel la de li may gis nii muy raam euh, pardon nga ne hmm. man j'aimerais bien te voir en Taraxlaayu en Taraxlaayu dina la jàpp ñi koy réclamer ñoo bari. ayoo taxaxlaa taxaxlaayu. Ndella doo wax. mu ne la. ban bu ngeen ma fi gisatul rek. taxaxlaayu taraxlaayu daal maanaam dégg ngeen ko tamit. <laughs> yow yow ban ban ban façon xam nga sax xam nga. <laughs> ndeysaan dinañ ma yóbbooti kër yaama rek. <laughs> loolu ban la per bu weex bi wala sër bu oyof bi lay jàpp taxaxlaayu dafa am ñu jàpp. ak ñu mu jàpp ku mel ni buuba xam na ko. bu Bob Marley bi ah ma ni ku mel ni buuba xam na li may wax. <laughs> ah. Mm-hmm. ay ca boobu yaa ngi ci tarax laay. <laughs> Ah, mm-hmm. ay ay waay ay spécialité. daf ko yàgg a bëgg. ku nekk fi nga mën buuba nga yàq nii. yii daf ko mën. daf ko yàgg a bëgg quoi. xam daf ko xam. Eh, eh, eh, du ma ci wax de. <laughs> yow moom bu ñu génnee nañ régler suñu problème man ak yow. voilà donc chers téléspectateurs gis ngeen nag. nii la da ngaa tiit voilà la team elle est là au complet donc li ñuy def nag mooy. tey thème bi. ah hmm. xaw na sensible nag. sensible. waaw xaw na sensible tuuti. Hmm. Hmm. léegi li ñuy def avant ñu ciy xuus. dañuy dem xool élément bi. waaw daal di ñëwaal yaatal waxtaan bi. ayca bisimilah. amis fidèles téléspectateurs maa ñëwaat di leen nuyuwaat seen émission Kakatar tey thème bi ñu leen indil wàllum kast la waaso ñi nga xamante ne ni tey bëggante nañ. waaye itam la leen gàllankoor bokk na ci ñi nga xam ne ñoo di njaboot yi kii géwél la wala séeréer la kii ñeeño la wala lawbe la ñoo ñee waruñu nañu sëy xeet gu ci nekk na yem ci boppam waral na itam relation yu bëri ñu ngi yàqu askan wi ku ci nekk ak na nga xamante nit noonee nga koy gisee bu mu leen jaaxal tey fi ñu nekk moo di ci péncum ndawum réew mi député yi ñoom ci seen bopp itam ña ngay wote budget ya nga xam ne ministère yi war nañ koo mën a wëyal ci atum 2021 waral na askan bi nga xam ne ñi ngi liggéey fii nii ñu ñëw seet si leen waxtaan ak ñoom ku ci nekk ak sa xalaat ndax it ci ñun la ñu bokk ñu dem ñëwaat. géwél yi nga yem sa géwél géwél yi nga gëm sa géwél boo yemee sa géwél dara du yàqu même suba bu sëy amul foofu macha allah kenn du la wax loo xam ne mun na la tere nelaw. ñun dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni tey dafay yàqu société bi dafay yàqu te en plus. ñi nga xamante ni ñooy alimenter loolu doon nañ ñoo xamante ni tey par exemple euh, peut-être euh, ci ci ci ci ci lancé lancé boobu noonu ñu jël mën na topp seen i sët sëtaat defe naa tey bu ñu bëggee euh, ñeeño yi sëy ak ñeeño yi tëgg yi sëy sëy tëgg yi et cetera defe naa loolu problème bu rëy la nara a indi fii ci dëkk bi tey instant bii nii sax am na ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi koy dund donc defe naa mbir la moo xamante ni bon ku ci nekk ak ni ngi koy dundee mais li ëpp solo defe naa moom mooy sa doom ak ki nga xamante ni yow tey jàpp nga ni déggal na la nga def la tout pour mu mën a am ay valeurs yoo xamante ni yooyu noonu idées yooyu daf koy génne ci boppam. au lieu mu tànn géwël bi géwël Sénégal gi mu préfère parce que tànn euh, comment dire tubaab bi. géwël séeréer pourquoi mënuñoo sëy lu tax mënuñu sëy ñoom ñaar dañu ay sénégalais ñaari étranger maanaam Sénégal ak étranger ñoom fii sëy. waajur moom kilifa la bu fekkee ne sa waajur am na koo gis bugg ko. te yow moom nga bëgg nga naxanteeg sa waajur waajur loo ko tarbiw du doy. su forcé dem ah loo ko may dem moo di sëy ba du dem du dem du ko ko ñaanal mee xolam mooy tàng su xolam tàngee du baax. ñëpp ay doomu aadama la amul gér amul géwél loolu moom amul fenn ñu ñëpp benn lañ ci yàlla lañ jóge xanaa ñu bañ a def loolu xam ne loo rafetul. géwél am na géwél am na géer am na ku ne géwél amul sa kër moo amul géwél am na géwél am na géwél am na géer ralasuloo mu waasu xam nga ku ne nga yem fi nga war a yem buur yi ñu ngi fii géer yi ñu ngi fii ñeeñooy ñu ngi fii ñeeñooy dañu bari mais dañu wuute am na géwél am na tëgge am na uude ku ne am nga sa xeeti mais ku ne boo yem fi nga war a yem dara du yàqu léppay baax boo gisee jamono bi jaxasoo de macha allah mooy loolu voilà chers téléspectateurs alors gis ngeen nag tey thème bi leen indil euh, muy euh, le caste ou waaso en wolof comme ni ngeen ko xamee rek euh, donc muy entre li ñuy naan géer ak lépp lu nga xamante ne moo xeetoo rek ci luy caste voilà waaso bon je vais pas rentrer dans les détails je xam ngeen euh, li nga xamante ne moom la doon muy euh, lépp lu nga xamante ne mooy tëgg ñeeñoo voilà euh, géwél donc yooyu yëpp même même xeet gi la rek donc tey nag fi nga xamante ne point bi ñuy focaliser wu muy ci couple ba tey ñun nag ci couple moo ñu moo ñu tax a jóg comme deelan mu ko waxee rek créé na agence am ñun adhéré nañ donc loolu yëpp dañ koy waxtaanee ci biir kàkataar alors Ndoye seetaan nga élément bi. Mhm. Euh, gis nga abi sénégalais yi. Mhm. donc yow tey euh, <coughs> gisee li nga xamante ne mooy euh, ñu fi fekk la nag lu fi yàgg la. Mhm. nga xamante ne peut-être société bi moo ñu ko imposer tey. mën naa je peux me permettre de dire ça comme ça. alors yow tey ban xalaat nga ci am ci ñi nga xamante ne vraiment ñaari nit ñuy bëggante la. xëy na kii di géer keneen ki nekk euh, peut euh, ci beneen beneen waaso. Mhm. Euh, parent yi taxaw ne du ci dal. Mhm. fekk ni ñoom bëggante nañ. tey yow loolu ban xalaat nga ci am est-ce que loolu lu war la wala lu warul la wala xëy na dañ leen war a bàyyi rek ñu bëggante yooyu yëpp waru ci am. non man pour man loolu warul warul parce que fii àdduna la fii senegal la te dañuy woote ni ay jullit lañu kenn gënul kenn ci àdduna bi fii kenn gënu fi kenn. moo xam géer bi gënul tëgg bi tëgg bi gënul géwél bi géwél bi gënul di géer kenn gënu fi kenn mais dañ nekk ci seen Sénégal boo xam ne dañoo gaaw ci xeebaate mën na la xeeb ci sa ñàkk am-am mën nañ la xeex xeeb ci fi nga bokk maanaam ci sa euh, waaso bi nga bokk moo xam géer nga nga dem sëyi ci tëgg yi ñu xeeb la nga sëyi ci géwél yi ñu xeeb la ou bien mu nekk contraire bi géer bi dem di takk tëgg bi wala géwal bi yaayam ni ko du ci dal xam nga mm, ñi dégg naa ci musaa dégg benn maire bu ciy xas benn xale benn xale bu jigéen ni ko séqu maag yow lu dul xewale may la ay mm. genre wax yu ñaaw yooyu mm. te ki nga koy wax tey ji soo feebaroon tey jii mu mën laa may deret nga jóg tey ji soo demoon ca morgue ba nga gis nit yi de yi barki dem boo jaay dem naa fa dem reportage mm. gis morgue bi la fa nekk ci ñu faatu mat nañu vingt personnes xàmmewoo tubaab bi xàmmewoo tëgg bi xàmmewoo xàmmewoo géer bi xàmmewoo géwél bi xàmmewoo lawbe bi xàmmewoo catholique bi xàmmewoo chrétien bi ñoom ñëpp ñu nekk ci benn kees mm. loolu noonu bés boobu gis nga di dem ci armée loolu tax dem ci ay armée baax mhm. dem ci ay morgue baax ba gis nga gis ñi ki taxawoon naan man tëgg laa wala man géer laa wala man maa gën giw nga dem xool foofu noonu foofu kenn gënu fa genn ñëpp ay bokk yam mhm. soo demee ci armeel yi mënoo taxaw ba xàmmee armeel bii ki fi tëdd géwél la wala wala tëgg la nga gis ni euh, tëgg ba ak géwél ba géer bi ñooy bokk même armée yu leen di mhm. leen di suul te mënoo leen a identifier donc Sénégal kenn xamul lan la du diine du dara mm-hmm. te xoolal nag tëgg bi wala géer bi wala géwél bi bi bi bi bi néew doole bi amul dara rek la ñuy bañaa mm-hmm. dañ naan du ma may sama doom tëgg bi wala duma ko may géer bi dem may ko tubaab boo xamul lu mu doon tubaab buy defari mhm. saak lu mu doon do do do du cordonnier <laughs> lan mooy cordonnier cordonnier mooy lan fii ci suñu mooy uude fii ngay dégg ni ni du may sama doom uude wala sax tubaab mën na nekk bijoutier bijoutier waaw tubaab bu nekk bijoutier yor bijoutier bi gën a rëy ca bitim réew nekkub tubaab ñëw fii mais dañ la koy may mhm. c'est ça mm-hmm. léegi nag du ma lekk mbët du ma lekk mbët tey naan ñeex mi la <laughs> c'est ça fii nii ñoo gis ñi fii bañ ñëpp ñi ngi fiy compte ñëpp naan du ma ko may sama doom toppal soo demee ñooñu dañoo amul seen seen loxo jotu seen ginnaaw mais fii ci dëkk bi am na fi ay ñeeño balameen yoo xam ne kër gu ñu fëgg ñu ubbil leen am na ci tëgg yoo xam ne kër gu ñu ubbi ñu ubbil leen am na géer ñoo xam ne kër gu ñu fëgg ñu ubbil leen man gan laay taxaw ñaan fa jabar da may jabar te géer géer géer laa et puis nañ bàyyi di wax naan géer gu set wecc laa mm. fii ñëpp a set wecc mm. fii kenn gënu fi kenn je paie très bien ma je parle ñëpp nag laay waxal Sénégal gépp laa wax de kenn gënu fi kenn ñëpp bokk yam d'accord ni nga juddoo laa juddoo soo dee su ma su ma dee niñ may suule la ñuy suule keneen mhm. ñun ñëpp ñoo bokk ñun ñu juddoo ñoo bokk ñun ñu suulee soo manqué deret sax wala nga soxla ko bu ñëwee xamuñu géer beeg géwél beeg non non tey ji suñu demee soo wootee tey ji nii da ngay def don de sang ña fay dajale ñëpp da ngaa xam ñii ñi fi dajaloo ñan la te deret ji suñ ko piqué ba sotti ko ci fan koy sotti même couleur la kulóoru mm-hmm. mm-hmm. géer beeg kulóoru tëgg beeg kulóoru géer bu tubaab beeg ñëpp ñëpp même même deret bi la d'accord mais am na yoo xam ne ay ay ay kii la dinañ ci ñëwaat alors Alima gis nga reportage bi mhm. tey gis nga fi nga xamante ne moom la ñu génn muy kaste euh, ak li nga xamante ne mooy ñeeñu yeeg géwél yeeg ak géer yi mhm. dama lay may sama doom duma la may bokkuñu xeet bokkuñu waaso tey loolu nan nga ko gisee ban jàngat nga ci am parce que de plus en plus nag quand même xëy na gars yi ñu ngi koy commencé di démystifier tuuti mais am na ñoo xam ne dañ ko gëm ancré ci loolu duñ ko foowee café wuñ ko mhm. waaw defe naa ne loolu war nañ koo xoolaat dund yu bëri nga ciy yàqu te nekk na loo xamante ni amul fenn fuñ ko bind ci alxuraan parce que ni mu ko waxee rek doo dem ca bu fajukaay ba wala fee ñuy tëddee foofu may bañ a tudd noonu foofu mu tudd ba nga ba nga xàmmee ka kay géwél ak kay géer kay tëgg ak ñoom seen dañoo dañoo toll ci jamono joo xamante ni nañuy sëy ci ngor di sëy ci bëggeel te bàyyi di xool kii géer laam géwél la ak tëgg la yàlla rek a xam ki baax li ndoy wax rek am solo yàlla doo nga xam ki baax yàlla xam ki gën fii ñun ñëpp benn juddu bi la waaw ñun ñëpp ñoo bokk ñun ñëpp a yem nañu waa nañu bàyyi di di di xool doomu aadama di la xeeb mm-hmm. xeebeel mooy loolu loolu xeebal la li mu wax tey bu doon tey koo xamante ni ku ku am daraja la wala ku am tur wala borom alal gu bari bu ñëwee nekk tëgg wala nekk géer duñ ko laaj foo bokk duñ ko mës laaj foo bokk mm-hmm. li ñuy lijjanti mooy la mu am la ca poosam moom la ñuy njëkk lijjanti waaye ka nga xam ne amul dara bu ñëw la ñuy njëkk lijjanti jullitanaam julite ga sax boo yoree alal duñ la ko lijjantil waaye bu dee ki nga xamante ni am du am yorul dara lañ lay laaj dafa jullite ban xeet la bokk kuy baayam kuy maamam kuy yaayam pour lan mais nañu laajandoo ñëpp rek bu dee dem nañu bay laaj nañu laajandoo ñëpp rek te ñu bàyyi ni bëggante ñuy sëy te yàlla rek a tax te bàyyi di wax ne kii géer la kii géwél la moo fi indi problème yu bari gis nañ fi ba tàyyi ñaari nit ñu bëggante te yàlla rek a tax mbëggeel bëggante ba dara desul lu dul sëy ñu ne duñu sëy ñu dem defi safaan wa mhm. ñu dem def li nga xam ne yàlla da koy tere ndax lan ndax mbëggeel bi nga xam ne moo nekk seen diggante mm-hmm. te nanguñu leen a maye après mm-hmm. après lan moo ci des li waroon am am na bu ngeen mayoon leen ñu sëy xëy na doom juddu ci moo gënoon loolu ñu leen bàyyi ñu topp ñoom seen mbëggeel mbëggeel ba def li nga xamante ne amaana neexul nañ war nañ cee bàyyi xel bu baax rafet na alors Pendo euh, dégg nga li Ndoye wax dégg nga li Alima wax Euh, ñoom nee nañ am na ñoo xam ne xëy na xoo bu ñu bu bu xëy na alal xasee ba tegu rek xoolatuñu géer laa géwél laa ak ñeeñoo la affaire yooyu mais nag quand xëy na am na partie yu mel ne mais am na ñoo xam ne tey ci li ñu gëm bu boo indi woon addinaay di ci biir jamaa bi ci monde bi yëpp mhm. ñoom seen conviction loolu lañ gëm te loolu la ñuy mhm. dund mhm. te loolu ci seen euh, génération yëpp loolu la ñuy dund donc am na ak loo mënti indi ñoom xooluñu loolu donc li ñu gëm lañ gëm téye foofu jàpp ci du dëgg xam nga loolu existé wul ci alxuraan léegi bu nu jugee ci jàkk lan lay maye waaye il faut mais ay réalité yu fi fekk la réalité yoo xam ne li ñu fekk la te métier rek leen wutale ay nit la ñu de métier ba dong la la géer géer daawul woon def dara ñeneen ñi ñoo am euh, métier kii dem sàmmi kii dem bayi kii dem tëggi kii dem ëwi géer ña doon toog foofu loolu la ñu bëgg a matale nii si suñu ginnaaw la nekkoon mais léegi nii comme li Ndoye Bane wax da ngay nopp benn tubaab tubaab bi forgeron la ci dëkkam te bu ñu la ko waxee fii nga bañ forgeron mooy tëgg tëddu voilà wala forgeron du tëgg forgeron mooy forgeron mooy tëgg tubaab ba day nekk forgeron maamam forgeron soo demee envers euh, euh, Versailles mm. fële Belgique moo duggee xam naa xam nga ko fa ñu jaayee euh, nu mu tudd or jamaa yi mm. foofu ku la fa takk tubaarkàlla masala ñeeño la lan moo xew tubaab bu la fa mën a takk nag mais Sénégal rek la loolu am te rek lim doy baan wax mooy dëgg boo ñàkkee lañ la koy waxal waaye tey tubarkalla xale boobu ne ci Amérique di way kum fi takkoon koy may bàyyi foos. te caam la sant. ah yii kan ci woykat mag bi. mais jaara ci tur bi ay kon caam fi doon takk da koy Akon du Akon la tudd. Akon <laughs> Akon Thiam. Akon waaw waaw. ñeeño pire la bu ko nangu lool nag. ku fi takkoon sa doom nga may ko ko. waaye doo jéem a xool sax fan la ndax kii ban caam la dañ koy reftal caam dem ba sax lañ koy yóbbu dèjà pour bu ñu bëggee fatt loolu arrêté leen parents yi te bàyyi nit ñi bëggante ñu sëy waaye man ñeeñoo laa ku ma bañ ma bañ la waaw am na ñeeñoo yoo xam ne duñ sëy géer Hmm? ku ma bañ ma bañ la je suis ñeeño et fier d'être ñeeño mais ni yéen ñeeño ñi ngeen ni ngeen ni ni géer yi di wax tamit ñeeño yi dañ koy ah mais bien sûr géer gu fi sëyi kër kër ñeeño yi da ngay am problème waaw laa doon wax ah, doy loolu dama ci ñëw parce que dina répercuté ba ci doom loolu déggoo sa doom suñu deret kenn du ko lan lay wax ci ñëw après loolu waaw kon dañ ci ñëw boo ñëwee tey mu metti de day neex mhm. yow kay tey da ngaa takku dafa mel ni seen tere je suis ñeeño et fier d'être ñeeño boo paree ma tasal la lan mooy ñeeño eh ku nu gisee booy la ci benn xeet gi du fara ci gi jawaan maar. yaa bu lool de bokkuma foofu. <laughs> bokkoo foofu de. mun nag foofu nga bokk. foo bokk rek nag bokkoo ay Versailles. dégg fi mu tudd léegi. fan nga tudd. Hmm? ñoom Givenchy. Eh. afal <laughs> afal. Bulgarie si jooju ñooy samay mbokk man. ay Dolce Gabbana ñooñu ñooñu kii dafa am ñeeñu tubaab ñeeñu européen. ah côté boobu laa bokk. yow taggal sa bopp rek. Modou Gueye doo ñeeñoo <laughs> Modou Gueye Gueye nga sant far ci gi cawaan maar nga. mais ñooñu borom jaam yi mais ñooñu européen dafa am. <laughs> waaw mais sama loolu tax ñu ne la sama ma tëggal. buuru tuuti dafay ko mel européen dafa war a weex rek. européen mën nañu waaw kii kii bëgg a bañ ne bokkul ci ngéyeen googu. c'est pas possible. bu baax nga bokk nag Modou. européen du ci yaram du ci couleur mën nga ñuul kuk nekk européen. moom baal ma àq bi la ay ay Pendo maamam li mu tëggal du maamam moo tëggal buuru tugal xam nga tugal. maamam moom mi toog nii maamam moo tëggal buuru tugal. bañ na la nanguwul de il est difficile damay ñëw ci ci Ndéla gis nga un peu waxtaan bi te Ndéla nag dafa créer lu am solo. agence matrimoniale la créé voilà donc Ndella est-ce que euh, peut-être sa agence boobu dañ ciy xool yenn critères yeeg yooyu noonu est-ce que tey peut-être euh, buñ la nit comme tey man ma jóg ñëw vraiment proposé wu ma ne la voilà dama ñëw bëgg pour intégrer est-ce que dafa am critères yu ñu lay tegal ci yëf yi géer géwél ak wala voilà expliquez ñu un peu. c'est un sujet très sensible. ouais je l'ai dit tantôt <laughs> ouais c'est très sensible. c'est très sensible et tout le monde a raison tout le monde a raison. Mm-hmm. une question d'éducation question yar wax na léegi lu am solo mhm. nee na ñee ñoo Sénégal ak ñee ñoo tugal li éducation bokkul daal mhm. Mhm. éducation bokkul réalité yi bokkul waaw xamuñu ñaan sax du nga xam ñaan du nga xam dañuy gëm seen bopp éducation xam ñu ko sax ki ne Sénégal nag comme li ngeen wax rek c'est en fonction c'est euh, c'est des D'accord Bon, l'amour n'a pas de frontières. Mm-hmm. mais di waxtaan ak xale yi dafa baax. dëgg la ndax pend euh, lu mu wax dafa am solo. Mm-hmm. ku ma bañ ma bañ la. Mm-hmm. mu nekk nag ndeysaan ñu ñuy jéggal ma parce que c'est un sujet tellement sensible. tellement sensible que. nga xam benn géwal bëgg ko bëgg ñu may la ko famille bi bañ mhm. famille bi war ñu xaar ba affaire bi yàgg yàgg yàgg ñu doog a bañ mhm. suñu naree bañ nañ ko nañ ko yëgalee nañ ko nañ mooñaale xale ñu màggee loolu c'est important mhm. ñu inculquer leen ko dès le bas âge waaw dès le su ko defee frustration du am parce que dara gënul métti nga jóg di ñaani ñu ne duñ la ko may. Mhm. ci ñu teg ko fan. parce que lii nga wala c'est très frustrant. xeebel. Mhm, waaw mhm. c'est très frustrant. mais tamit dara gënul métti nga rax société boo xam ne xamuloo ko woon dugg ba si biir nga gis leneen gëlëm. kon ñu ànd nañuy sëy. ñi ànd ñu bokk xeet nañuy sëy coow li du bëri. waaw ngeen wax ji. Mm. tëgg yi sa tëgg ya géwal ya sa géwal ya buur ya sa buur ya donc ku nekk daal catégorie bu nekk nañuy sëy seen biir mm-hmm. coow du am mm-hmm. non man loolu loolu ban loolu ban affaire ban affaire coow du am su fekkee ay jullit lañu diine nanguwul loolu waaye mais bon ñu ñëpp bi ñu juddoo xam nga tey jii suñu kenn dee kenn du tax imam bi du taxaw daan ni kii faatu nag géer la nañ ko taril nangam kii faatu tëgg la nañ ko loolu ça n'existe pas suñ taxawelee sàpp yi ngi di dañuy ci yàlla ak yonente bi la ñuy wax su fekkee yàlla lañ gëm ak yonente bi yooyu dañ ko war a génne ci société bi mm-hmm. dañ ko fi war a génne parce que affaire u xeebaate du diine du lislaam te jullit du xeeb moroomu jullitam ça yow dañuy fonk seen bopp de Sénégal li fi xew c'est dégueulasse xeeb sa moroomu nit ça c'est ça ça c'est c'est su ma mënoon a utiliser c'est bassesse la quoi c'est pas c'est pas bon te loolu rek la ñuy gis ci dëkk bi xeebaate. voilà c'est pas bien. xool muy ñaaw yooyu foofu dinaa fa ñëw ñu naan ay bu la létteeg boo fa toogee booy ànd ak moom da dellu ginnaaw bon c'est vraiment thème très sensible moo tax létt létt yi da nga am ay picc ñu naan avec des pincettes quoi vraiment mm-hmm. voilà alors dina di ndooy loolu nga wax noonu Pendo nañ ci ñëw alors Modou euh, thème bi gis nga ko. Mhm. par exemple tey nga bëgg nit mu bëgg la walla mhm. ngeen dem ba ci biir xëy na sax amaana ki ngay ki ngay bëgganteel sax xamul woon bu demee ba ci biir ndekete moom xamul woon xëy na ni am na fu mu fa laale walla am na fu mu fa bokk. ñu dem ba ci biir ñu recherche dem ba ci en profondeur gis ni ah saa waay kat ndekete laal na lii famille ku jigéen ki wala famille ku góor vice versa ñu bañ parce que nee ñoom dara du rax ci seen famille. lu yàlla bind. nit moo gën a bon. nit lu yàlla bind ñun ñoo ci gën a bon mhm. sujet bi dal na ma ñetti yoon hmm? ñaari ma bàyyi mu jàll hmm? ma gedd dem ñetteel bi ma ne dinaa bokk ci ñiy bokk ci ñi koy dindi wala ñi koy jéem a arrêté bu njëkk bi noo ko dundee voilà voilà déy am na si boo xam ne dafa ma fekk ma toog te ki may wax mi may dégg c'est un professeur dafa ni ma carrément ñun du ñu laal ak tëgg ma jóg dem sama yoon ak beneen ma bàyyi mu jàll mais bu ñu la ko teelee wax ci premier jour yi am ñoo xam ne famille yoo xam ne premier jour bi ñu lay gis lañ lay laaj nga sant ba nga ne nii. nii nii nii foo foo mbokki fan boo waxee. après ñu wax seen doom yemale ko après seen doom di nga xam ni problème am na. nga teel a génn fekk yàggu leen defu leen ay deux trois jours. mais bi ma ko defee première fois defaat deuxième fois troisième fois bi dama bañ. nga fippu dama fippu téye. téye xale bi waaw. mais Modou nga fippu téye. Mhm. est-ce que xalaat nga conséquences yi. il fallait que mu metti àddina bi pour affaire yi avancer foog muy metti mais am na ñoo xam ne boo bàyyee muy continuer dañuy mel ni ñoom ñoo nekk ci mhm. yoon mhm. nekkuñu si dara mhm. waaw seen seen gëm-gëm la je veux dire boo gisee benn xale boo bëgg ngeen dem quelque temps man je sors pas avec une ay deux mois trois mois quatre mois long man su ma génnee nit un mois rek xam naa ndax bëgg naa la jabar wala bëgguma la ah góor yëpp nag dans le monde bépp góor boo leen di génnal un mois deux mois trois mois maximum xam na ndax bëgg na la jabar wala daf la bëgg fooye mm-hmm. na que ça soit clair mm-hmm. ci samay doom ak samay rakk ak ñëpp mm-hmm. góor bu la bëgg doxaan ko du yàgg doxaan bi du yàgg góor bu la bëgg du la may oto du la may avion du la may lépp trente mille moo gën a yomb mënu la yóbbu jàkka ja dina la doxaan pendant cinquante ans na la jëndal avion na la jëndal lépp mhm. et une complicité des parents aussi mhm. man sama doom ku ko may avion wala oto boo ñëwee ci kër gi ci biti laa koy wax mhm. il faut que mais ma la déggee nga déjà yaa ngi xaaral Pendo. déjà yaa ngi dugg feneen. waaw donc dafa mel ni. c'est un vécu li ngay wax nii. man dama ko dund man waaw parce que ni ma la déggee ngay waxee. vraiment émission yi may def fii yëpp. fi nga jóge ak fi nga dal dafa mel ni c'est un vécu man li may wax yépp du nettali du ay yëfu jàmbur li ma dund la j'ai vécu ça te ñi ma koy waxal ñi ngi may dégg ñi ngi may seetaan. métti bi ma defee un mois ak xale bi mu ñëw ni ma sama yaay bu la laajee ne ko géer nga. Hmm. Hmm? dama mer ba saago ko. Hmm. ni ko dégage je veux plus te yow ak sa yaay. xale bi dem jooy après ñëwaat négocier négocier ñu dem affaire bi naroon naa bàyyi mais ma day yomb ba téye. Mhm. nga défier. ma défier parents yi mais li may wax nii suñu côté ñun tamit dañuy def loolu. Mhm. il faut que qu'on soit honnête. Mhm. ñeeñu yi dañuy bañ géer. géer di bañ géwal géwal di bañ tëgg. fii dëkk bi li fi nekk dafa grave. xaw ma ay nit lañu xaw ma am na si nit yoo xam ne rabu àll moo leen gën. ñun ñëpp ñu ngi jóge ci Adama ak Awa. ñaari nit. chinois bi japonais bi français bi ñun ñëpp nous sommes des êtres humains kenn gënul kenn. kii gëmul yàlla sax amoo droit rey ko. bàyyi ko yàlla. loo koy bañee nit la être humain la. mais man racisme ak lépp dama koy tuddee racisme. Mhm. ak lu bon. j'ai fait l'Europe def naa tukki naa fu nekk mais amul lu ma gën a mettee ni sénégalais comme man ñuul comme man di ma xeeb. Mhm. tubaab su ma xeebee garaawul. Mhm. nuroowuñu couleur. su ma nee génnal sama dëkk nuroowuñu couleur. mais tu nit ku ñuul comme yow. ngeen ànd màgg dëkk jullit yaa ko gën a jàng alxuraan yaa ko gën a ragal yàlla lépp mën na am. nga ni ko uniquement sama deret moo gën sa deret il faut que ñuy wax dëgg bi loolu la mhm. sa maa la gën deret mhm. loolu la ñuy waxante maa la gën xeet maa xeet mhm. d'accord kan nga gën nga ànd ak nit pendant trente ans seen ñaari doom màgg lu nekk def ngeen ko seen doom yi bëggante kenn ki ne ah sa waay la munu la kii de si sama xeet munul jaxasoog sa xeet pourtant ànd ngeen 30 ans. peut-être même il t'a sauvé la vie quelque part wala dara wala dara. Mhm. mais doom yi màgg bëggante nga ni du ci dal man tëgg laay kii géer la ñu ànd ba yéen seen xaritoo tas gis nga xale boobu tout sa vie waa jooju lay xalaat. Mhm. même su amee jëkkër ak bu amul jëkkër yëpp pour mu enjoy sax ku góor kee lay xalaat. <laughs> yàq nga àll yëpp nekk na ah, nag depuis demi émission bi yëpp man maa ngi soog a comprendre. Hmm. Moodu. Hmm. Hmm. depuis début kàkkataa man maa ngi soog a. li tax mu doon fase xam Moodu. fi muy waxee teg comprendre maa musuma comprendre Moodu ci émission yi mais tey maa ngi koy soog comprendre et je pense que peut-être sénégalais yu bëri. tey dinañ comprendre Moodu fi mu doon waxee ak lan moo tax mu doon wax. ça a mm. duré xaar bi dama ko xaar cinq ans. jërëjëf ñafe ko cinq ans. Moodu loolu ni du ma oui ni du ma bàyyi. Mhm. mujj naa ko takk. du takk boobu foofu ngay teg sa loxo ndax di ñuy wax takk bi après nan la demee ak la fa jot a xew <laughs> alors Ndoye euh, li mu Moodu wax nii euh, dafay am na xale yoo xam ne comme ndeela lu mu wax xëy na buñ bu ñuy màgg duñ leen inculquer loolu wax leen ne xëy na yéen waroo leen teg fii seen tànk waroo waroo def li ba ñoom xamuñu. ñu dem ba xëy na màgg gisante ku ñu bëgg a ëpp bim rek affaire bi dal seen kaw duñu ñu comprendre. Mhm. te loolu xëy na Moodu ni mu wax nii bu ñu demee ba sëy malgré que parents yi ànduñu ci. Mhm. loolu dafay répercuter ba ci doom yi. Mhm. effectivement effectivement. day ba ci doom yi. te day feeñ ci xew yi yow par exemple tey bu dee yow géer nga nga dem sëy ci ñi nga xamante ne xëy na ñooy ay eh, géwél ñee ñoo uude tëgg bu ngeen dajee dafay feeñ. Mm-hmm. effectivement gi nga affaire bi dafa dafa xóot dafa xóot dafa xóot xóot boo xam ne tey jii man mën naa bañ gëm loolu mm-hmm. ma am sama doom bu jigéen benn ñeeño bëgg ko takk sama yaayee bañ mm-hmm. man d'accord naa sama jabar d'accord xal sama doom bëgg mais sama yaay ak samay papa ak samay fa sama famille ñoo naan moom soo ko bu ko ko may teg la pression yow papay xale bi a xale bu jigéen ngay def yow papay xale bi dañ koo teg pression ba tax mu bañ sëy bi jamono jii laa wax ah parce que affaire bi mi ngi wàññeeku ndànk-ndànk mais parents yi ñoo lay teg pression mm-hmm. ni la sa doom ji du sëy ak nànk du sëy ak diw su ko defee ma génn ak yow àdduna ak alaxira xam nga sunu yaay dañoo tàmm génn naa ci yow àdduna ak mm-hmm. alaxira dooma teg gàcce patiti patata wax a wax a wax wax teg la pression yaa fi def lu kenn deful waaw yaa fi def lu kenn deful te gis nga tey soo ci duggee non Sénégal nii Sénégal li nga xam moo du ni ñuy li fi ne nekkul ci benn réew. soo soo jëlee sa doom may ko benn euh, tëgg wala benn géwal wala wala mu dugg ca tëgg ya ñu tëgg ya di ko xeeb ak ñoom seen su fa juree doom kenn du ko takk. <laughs> mooy li maanaam tey ji dangay nekk géer mhm. jël sa jabar sa doom may ko famille Thiam mhm. sa doom may am fa euh, sëy ci famille Thiam am fa doom yu sant Thiam xam nga tey ji yéen ñi nga xam ne ay géer ay ndijaayam fi mhm. ay géer lañu maanaam ci famille géer dafa am parti am fa ci famille ñëwee am parti tey ji sa famille bi ñu jógee kenn du ko fa takk ci mu mu tëggee lay mujj xëy même même tëggee lañ koy bañ mu doon benn xale boo xam day nekk ci diggante bi géer yooyu duñ ko takk amatul repère su demee ba nga xam ne tey ñi ji jaaxle xamuñu mu dem wuti tubaab. Mhm. forgeron tubaab bijoutier tubaab. indi ko ñu accepté ko. li ma jaaxal Sénégal yi dañuy bañ lii nangu xaw ma hypocrisie nag. dañuy bañ yàpp di naan ñeex ma waaw dañuy bañ mbëtt di naan ñeex mu mbëtt ma loolu. kenn xamul lu mu doon li ci gën a bizarre nag mooy intellectuel yi ñoo gën a gëm lool Mm-hmm. loolu man moom moom laa mënul comprendre. Mm-hmm. Modou dinañ ci ñëwaat <laughs> suñu papa yeeg suñu yaay yi ak génération bu bees bi est-ce que ñoom vraiment gëm nañ loolu est-ce que ñu ngi koy dund ba léegi. dama ne même suñ ko gëmul seen sa papa say parent dañoo gëm loolu. d'accord. xam nga dinañ ci ñëwaat. voilà léegi dañuy def daal di wàcc tuuti yëf yi. Mhm. waaw wàcc tension bi merci Ndéla wàcc tension yi man daal man Ndéla daal far naa ci moom léegi nee naa leen bindu naa nag. Pendo Alima ah? yow bindu bokk déedéet Alima ko waroon a laaj ndax am na doom bu jigéen. waaw su ko benn géer. dama dama bëgg ñu jox Assane mu def ambiance ñu ñëw ci loolu. ca Assane Euh, je pense que dégg nga waxtaan bi euh, nu mu demee alors euh, est-ce que dafa am loo ci benn kàddu rek loo ci sànni xëy na yow mën nga ko way nga ko sax bañ naa ba defe naa ni way nga lu mel noonu def nga ko tem donc voilà alors mën nga ñu ci wax tuuti rek avant que ñuy ñëw ci ambiance bi. waaw yaay Awa jërëjëf man thème boobu li ma ci wax mooy. Mhm. dafa nekk thème d'actualité. Mhm. man dund naa ko sooy mbokk dund nañ ko. Mhm. gis naa ñu ko dund. Euh, Ndella Madior dafa wax ju am importance sànq. Mhm. parce que affaire caste fii ci Sénégal. Mhm. nekkul loo xam ni dañ koy effacer ci benn bis. wala ci ay weer wala ci ay at. c'est toute une histoire. parce que xeet bu nekk dafa am ñoo cosaanoo fii ci Sénégal. Mhm. ñii buñ juddoo leen bëkkata ñii buñ juddoo leen jox giwél mu nàmpal leen pare ñu soog ñu soog ñu soog leen tudd. kon dafa bëri ay façon yoo xam fii Sénégal. noonu la ñu euh, noonu la ñu dundee mais kenn ku ci nekk fi nga bokk mën nga fa sëy ba yàlla jël la. Mhm. te nag nit ki comme dundee baan wax ni du xeeb doomu aadama. Mhm. waaye naa ma ne nit ki la xeeb ba yëgu la. Mhm. bu mu la metti benn yoon ndax ku ko gën fonk na la. boole ci di la teral te ko dara. Mm-hmm. naw la nekkoo ci téere naw la nekkul ci diine kon ñaar ñu bëggante la ci gën mooy may ñu sëy mm-hmm. man su ma la bëggee yow te say mbokk bëggum bëgguñu ma ma bala fa dem say mbokk kon kon kon kon Assane su ma la déggee bu baax da ne ku ne na nga fa nga bokk na fa yam pour le moment waaw loolu lañ mën doxal situation bi nu mu demee nii fi Sénégal fi ñu toll nii mm. kenn ku ci nekk fa nga bokk mën nga fa sëy ba gis ñaar ñoo xam ne comprendre nañu tey benn lawbe tey ak benn giwal yoo xam tey bëggante nañu mhm. seen mbokk déggoon nañu ñu sëy ñu def ko macha allah mais kenn ku ne fa nga bokk mën nga fa sëy géer gi fa mu mhm. nekk fa sëy mhm. man asta ma bokk mën na fa am cinquante jabar macha allah ci fëgg ñu may ma jabar am na solo dinañ ñëwaat ci waxtaan bi gën ko yaatal alors tey euh, lan ngay commencé ñu daal di koy jox téléspectateurs yi rek bisimilah booba sagane dana lay saay saay bu leen dégg riiru mbëggeel ba tàng soobu su ëllëgee yaay wéet jooy kenn du la nax asalaamualeykum euh, mbokk yi man la professeur Djibi Diakhaté di sociologue nekk jàngalekat fële ci université de Dakar euh, nekk euh, aussi membre conseil national de régulation de l'audiovisuel mu mel ni waxtaan wi mi ngi jublu ci mbirum li ñuy wax giir wala askan ñu mu yàgg ci penc mi te boo ko dee xool démb ak bërki démb mu nekkoon loo xam ni dafa mel ni ay métier yoo xam ne nit ñi ci lañ doon yëngu muy métier boo xam ni maam moom la daan def bàyyi di ko def doom mi ñëw nekk ci loola. moo xam métier bi nit ki day ëw moo xam nit ki day tëgg wala muy suub moo xam euh, nit ki euh, dafay way euh, moo xam nit ki dafay bay moo xam nit ki dafay napp dafay sàmm boo ko dee xool dafa doon métier boo xam ni maam moo ko tàmbalee woon di ko def mu nekk loo xam ni waa kër gi yëpp ci la ñuy nekk di yëngatu alors jamono di dem nag ba ñu jàpp ni ku ci nekk ca fa nga bokk ci mbirum takk sëy ca foofu nga war a yem donc mu nekk sëy boo xam ne dañ koy takk ci biir giir dañ koy takk ci biir Euh, askan léegi nag liñ ci boole yëpp moom mooy ku génn ci sa giir wala ci sa askan dem ci beneen askan euh, am fa soxna wala nga am fa boroom kër dafay mel ni jéggi nga yoon te boo jéggee yoon woowu nag euh, lu ci bari lu ci feeñ mooy ay jafe-jafe moom ay jaaxleeg yu demee noonu donc nit ñi dem ba dugal loolu ci seen bopp gëm ko jamono di dox ba diine yi ñëw moo xam diine l'islam la moo xam diine chrétien la mais diine yi daal di jàpp ne yooyu ñu jàppoon ni ay xaajat la ci ay askan ci ay giir du lu ñu mën a nangu euh, que nit ñi gënante wuñu ci askan ak ci giir nit ñi ñuy gënante ci ragal yàlla donc loolu rek moom moo nekk lu am solo waaye boo ko dee xool donte nit ñi dañ naan la euh, jullit lañu wala catholique lañu dafa mel ni ñu ci bëri dañu continuer di gëm li nga xam ni moom moo fi nekkoon nag démb bërki démb loolu nag dafay am jeexital euh, ci gone yi dafay am jeexital ci sëy bi ci sëy bi nga xam ni takk nañ ko mën nañ ko takk tey ñoom way dencante yi jàpp ni loolu gëmuñu ko nañ ko takk ñu takk ko waaye bu ñu demee ba ci kanam nag mu indi ay yenn jafe-jafe yoo xam ne mën na cee feeñ ba jafe-jafe yooyu sax mën na tis ba laal gone yi euh, mu am nee na nu ñu leen di waxee am nee na nu ñu leen di xoolee am benn cër bu nga xam ne moom moom lañ leen di jox loolu yëpp nag dafay wane ni war nañu dellu ci euh, waajalaat dëgg-dëgg suñu pénc war nañu dellu ci dëgg-dëgg yaraat suñuy pénc moo tax waxtaan bu mel nii ma jàpp ni lu am solo la mu nekk contribution ci lu nga xam ni dafay gën indiwaat nit ñi ñoo xam ni li gën a am solo daal ci doomu aadama nekkul foo jógee foo waaso nga bokk ak ban penc nga bokk ban askan nga bokk waaye nit ki ndax nekk na nit ku jub ndax nekk na nit ku yiw ndax nekk na nit ku sell ndax nekk na nit ku baax loolu moom moo am solo mu doon góor mu doon jigéen. àndoo foofu dafa fekk ndeysaan mm-hmm. kon xam ngeen ne loolu histoire bu yàgg la Sénégal comme ni mu ko waaye nee na bul dégg riiru mbëggeel ba tax laa soobu bala ngaa soobu na ko tubaarkaala bala ngaa dugg ci ndoxaan gi. waaw Ndo Ndo da nga takku ñaari fan boo déggee kër ba naka la du dëgg. waaw waaw loolu loolu aussi dama bëggoon ñëw ba ci sant yi. waaw sant yi tey boo naan sant ba. sant ba boo déggee damay dégg ñu naan sant dëkkul fenn est-ce que peut loolu tamit lu lu am. léegi la commencé ñàkk dëkk fenn sant rek mën nañ la dëkkale fenn am ñoo xam am ñoo xam ne bañ nañ leen sant dëkkul fenn waaw non sant dëkkul bu ñu ko waxee léegi tax da gis ku ñu affecté léegi Gambie mu dem fa doon sénégalais nga am fa doom tubarkalla nga yóbbaale géej ñam maar gi bu demee ba foofu loolu lay wuyoo mais dama wax nit balaa mu laa bañ boo yëgee ni bañ na la da koy bañ ba pare xam nga nag dafa jot sax pour ma wax ak ñi ci internet bi su ma waxee dañuy foogoon sama kaa laay wax aw ma kaa waaw pour ñu xam ko parce que su ma waxee dañ naan kii xanaa jëkkëram la doon waxal fekk du loolu waxuma loolu de mm. jëkkër aw dara su maa ngi nii ci kiiwu ndeela bi laa bokk mais damay wax de manière générale voilà léegi ethnie yooyu nag laa laa la bëgg a détaillé soo paree bismillah soo defee tour ba pare dañuy wax ñi ay ñeeño lañu mm-hmm. mais koo ne ñeeño rek mu a tëgg la non non ñun ay maabo lañu. maabo maabo bu njëkk ba liñ doon defar seen aada moo nekkoon defar sëru rabal yi. nga soo gisee ñu naan sëru njaago léegi sëru rabal la sëru rabal yi. sa tànk bu gaawee dañ naan la sa tànk bi dafa gaaw comme barngalu maabo. ah mooy li ñuy dugalante barngalu maabo mooy affaire bu gaaw. boobu ñuy rabante lu gaaw loolu. léegi nag man ñun ay maabo lañu lool lañ doon liggéey ak tabax ay ndaa. Mm. yaa ngi dégg mm. léegi kee dafa nekk tëgg. Mm-hmm. comprendre nga. Mhm. kii nekk uude mais ñëpp dañ naan ay ñeeño lañu. Mm, donc même ci biir ñeeño yi dafa am ay catégories. waaw mais ñiy tëgg bokkul ak ñun. ñun ñun ay maabo lañu mais tëgguñu. d'accord est-ce que nga. léegi kii kee day tëgg mais ñun ñu te mais mais boo wax ñi ay ñeeño lañ danga naan ñii ñëpp ay ñeeño lañu. waaw mais mais Pendo même quand même groupe boobu exactement foofu laa bëggoon. même yéen ci ci biir groupe boobu noonu da ngeen di taamonte da ngeen di dafay am lu bajante ci seen biir. am na ñun dañuy xeebaate maa ba du see ak sakke sakke mooy uude. si mm-hmm. arrière maam yi la ñuy wax loolu dañ naan maa ba du see ak sakke sakke mooy uude. Uh-huh. dañuy wax loolu tooroodo yi dañuy bañ du ñu see ak maa bo tooroodo du see kudul tooroodo. Mm-hmm. am na beneen bu am muy jaawaando. Euh, jaawaando mm-hmm. yi ñoom seen deret ñoom pour ñoom. seen deret bokkul ak beneen deret ñoom du ñu sëy kudul jaawaan rek bëgguñu ko boo fa ñëwee sa tak dañ naan la bu dee artiste nga maa ngay woykat danaan demal woy ñu may la doo ta <laughs> c'est vrai lawbe ak pël xam nga benn la kii daa yetti kii sàmmi mm-hmm. mais ñaar ñu bokku ndeex bàyyi la kii jaar boor bi kii jaar boor bi mm-hmm. te dañuy dañuy duñu laalante mais lawbe rek lay tàkk mm-hmm. millions yu bari yëpp seen mbokk lañ koy jox Mm-hmm. comprendre nga waa léegi nag fi ñu tol nii man bu ma nekkee ñeeño nga bañ ma waaye itam mantam tam dama lay bañ yow géer ndoon ak yenu nga tem bi raw ak moom an ah, kay dama yenu ko <laughs> naa doomu nday boo xam ne ñeeñoo la mais dafa ne moom du see géer ah. ñeeñooy bëgguñu see géer de mm-hmm. géer ñi bu du ñun rek ngeen bañ ñun tam ah, dañ leen a bañ man géer bu ma leetee sama karaw day dagg mantam tam <laughs> ah nañ ko teg foofu <laughs> géer su ma su ma bañee boo ma bañee ba wax ma ko ma bañ la ba wax la ko ku eh. la bañ rek nga bañ ko ndax nag fa ñuy mayee deret kenn xoolu fa ban moom ki sant caama ki sant ama luy problème bi sax yow yaawa fi ñu toll ah, maanaam li tax problème bi muy xaw di bëri tout le temps xam nga bu njëkk ba sax da ngay bëgganteeg ndaw si wala ku jigéen jékki saa yi ñëw seen kër ñu laaj la noo tudd ak noo sant teel a xam fi nga mm-hmm, sant ak léegi mm-hmm. waaye bi réseaux sociaux yeeg téléphone yi bare xale yi dañuy bëggante ay at doo ko yëg doo ko yëg dañuy bëggante ay at yu bëri yoo xamante ni doo ko yëg nekk dem dem ba mbëggeel bi law ba saf ba ba ñoom fi mu toll nii mënatuñoo contrôler seen bopp ñooy programmer seen i mariage mhm. ñooy waxtaanee seen mariage ak seen lépp mhm. yéen daal du ñu def lu dul aviser parents yi mhm. waaye léegi heure boobu jot dil ba kalaate dil ba kalaate ñu jékki saa ni la waaw géer kii géer la waroo sëy ak moom kii géwél la waroo sëy ak moom kii tëgg la waroo sëy ak moom dama defee ne li kii wax dafa am solo dafa jot ñu waxtaan xale yi Mm. xale yi dafa jot ñuy waxtaan ak ñoom te gis nga boo nekkee xale mu am benn âge ba mu toll teel koo xëcc sa bopp di xam mooy li muy def mm-hmm. di xam ci yu muy dugg di xam ci yu muy dox mm-hmm. dafa am solo parce que mooy waral nga toog ba yëf fi ne kott na jonn ñu indil la après nga ne man non non man géer laa du ma sëy ak géwél man géwél laa du ma sëy ak géer man ñeeñoo la du ma sëy ak kee non mais loolu fi ñu ko bind gis nga yii nii binduñu ko fenn dafa dafa dafa jege loolu mën na fa indi ba am am jëkkër am far waa léegi dooy xaar hmm? ne leen que amul différence ñu ñëpp benn lañ wala ñu war leen ni fii waroo leen da ngeen am am ngeen bari kii waxee ñii duñu sëy ak ñii ñii duñu sëy ak ñii fi suñu temps yi maam lañu ko gëmoon booba ba tey ñu ngi ko gëm ba léegi waaw gis nga ña ko gëmoon booba ba tey ñu ngi ko gëm ba léegi hmm. Hmm. waa léegi comme gëm nañ ko ba léegi pourquoi depuis temps xale duñu xamal xale bi ni ko yow waroo sëy maabo yow waroo sëy géwél yow war bul fexe ba fexeel ba fi indi loolu nga teel koo def sa xel xam na yow kat lii adduna du neex ba ilaa yow din ba ñu may la ko ba ñu may la ko mais Ndoye comprendre mu euh, nekk lu yéeme loo xamante ni est-ce que loolu tey mën na régler problème bi non mais et tu penses que problème bi pour régler problème boobu problème est-ce que peut-être loolu ah, mën na jamonoy maam loolu réglé wul de réglé wul de problème bi réglé wul de ba ilaa yow mi din ba adduna problème bi day xaw a wàññeeku nii mais du réglé wul de waaw kañ tey maa ngi naan la loolu mën na indi am jëkkër am far xam koy waral da ngay génn ak nit xale yi ba ñuy génn ay cinq ans mhm. kii teg géer kii nekk tëgg doo leen ko yëg ñu xëy suba ñu dew taxaw ci parents yi maye leen ñu parents yi bañ nga jël sa doom bi may ko keneen pour rawale ko mhm. fekk yow da nga koo da nga koo rey da nga sànq yaa ngi may ko keneen ma ngay sëy keneen mais kee la nopp mhm. day sàcc di ko seeti ñuy sàcc di ko seeti ñuy déggante di gisante te doo ko yëg waa ji ngénte doom ndeke doom ja doomu tëgg ba muy bañ la doom yi ñuy ngénte yëpp tëgg baa ko jur c'est vrai yooyu nañ am na c'est vrai mais nag man d'accord ma foofu ak yow ndaxte ñu am na ñoo xam ne lañ doon gëm ñu ngi ko gëm ba tey gëm nañ ko ba tey xaalis moom moom laa la wax na la non non non mais am na ñoo xam ne déggoo li ma dama ni koo gis ñu bañ la daa fekk daa fekk yoroo xaalis <laughs> mais ku fi ku fi bañ géer mbaa nga bañ fi ñeeñoo mbaa nga bañ fi lawbe mbaa géwél tubaab dina takk sa doom nga may ko ko te xamoo la yow forgeron am na Europe ak ak kii dàll uude am na Europe tubaab yoo xam ne ci dàll yi liggéey des fois da ngay jongo ma loolu mel ni man mi toog ni damay defaraat sama toog <laughs> nga ma loolu ñu wax waa ji mun a mun a du maye mu téye ngëb kii ngëb cinq xam nga ne da koo jaral <laughs> du dëgg ah. mu ngëb rek ne da koy téye parce que mu ngi gis jongo ma gi ci yow ak mbëggeel gi mu yëg ci yow nañ arrêté nañ maye ñu bëggante nañu bàyyi di wax ne kii géer la tëgg la baaxul dafa am benn affaire peut-être même da bon non non non sans tabou sans tabou. da nga genre vengeance la. si si c'est vrai man personnellement. c'est vrai c'est vrai j'ai pas honte de le dire. c'est vrai dama venger wu. dama téye defante ni yaay ji nag tey di nga xam. téye xale bi te barki. alxuraan bugguma waat du gàllaaj du dara. fexe ba xale bi takk la rek la. parce que xale bi da nga ko naan mettre entre le marteau et l'enclume. loolu mooy choisiral entre sa say parents. man elle a choisi. Mm-hmm. elle a laissé ses pour moi. léegi mm-hmm. ah, ah oui ah oui c'est ça ah mais après da koy regretter de. ko def leen bàyyi. mais après da koy regretter. parce que dafa taxaw ni leen moom wala ñun. Modou anam mais mais mais nag mais nag Modou tôt ou tard da koy regretter. te nam koy regretter day tôt ou tard. tôt ou tard man comprendre non elle elle ne regrette rien xam nga ñan ñooy regretter. Mm-hmm. ak leneen lu ci am. parents yi ñooy fay affaire bi. waa léegi anamu. parents yi si boppam. ñoom ñoo def lépp. waaw ba pare même boo ka takkee du ñu bàyyi. ñu ngi ci sëriñ ñi ñu ngi ci <laughs> lépp di defaraat. dafa yéen a xew léegi Modou ana moom ana xale bi. divorcé nañu. waaw mais après day regretté léegi yow mu bàyyee papaam bàyyi yaayam te topp la Modou waroon ngaa gore la téye xale bi nag. may <laughs> ma ma yeggali ah déedéet. ah vraiment xam nga loolu mooy problème bi. non mais loolu mooy problème bi nag mais foofu nag sama waaye nga mais foofu yaa déconné ah. mais voilà. loolu problème bi ak bu la doon takk chaque jour di la dóor sax yow war nga ko. ce n'est pas vrai. non non ku bàyyi papaam bàyyi yaayam ndax yow. non non non. Eh, moo tax waykat bi waay wala eh. xana bëgguma ñu personnaliser débat bi ñu tourné ko ci moom am ñu koy dund ba tey eh, démb démb ah. am naa sama benn cousin papa ji dafa ni ko ma la may sama doom tëgg nga ba tey mi ngi am mhm. tey nii mi ngi am te la gars il travaille a de l'argent il a tout mais papa ji dafa am mooy li ma doon mais nee na moom dee rek mais du may doomam tëgg. alors dañuy milliard dañuy jox ndee la dafa am ay intellectuels ils sont comme ça. Mm-hmm. Mm-hmm. dama ni la ya nga wax lu tax ñu divorcé. mais di nga teg mooy ñoom dee la rek. dafa dafa xaaju. alors waaw léegi wuy leen. ndee soo defee lu mu bëgg tamit dama lay fas bu leen émission yéen ñaar ndee la. <laughs> ndee la yow tey dégg nga wax ji en tant que maire de famille je veux dire tey est-ce que euh, d'accord nga ci nga xamante ne mooy Moodu ni mu déroulé ak état d'esprit bi mu yoree est-ce que nee na tey xëy na yow sa doom bu demoon bay def choix boobu noonu yow nan nga ko ci accompagner ak vraiment lan lan nga décider pour def pour taxawu ko. c'est très difficile est-ce que di nga may sa sa doom dooy dama ci bañ dama ci bañoon yegg rek est-ce que di nga may sa doom nee la nee la ñëwul dooy merci nga yeggal ma dama ci bañ daanoo ci gën a gaaw waaw ay ca bismillah daanu naa sama doom sama doom bursin la quoi toorodo la quoi toorodo ak bursin waaw toorodo ak booy bursin muy feeñ nag si jukko bi muy feeñ ah muy feeñ si jukko bi da nga bàyyi ma daaneel ah da nga bàyyi ma daaneel wax li ne si xol bi waaw ñëwul bismillah dafa am ñoo xam ne soo leen gisee di nga xam fan la ñu bokk. Hmm. waaw. loolu kenn mënu ko dindi. Mm-hmm. xam nga kii lu mu wax elle est fière. Mm-hmm. lu mu doon. waaw. man Kumba Gawlo sama du sama xarit sama rakk la. Mm-hmm. elle nga wax ji. man doomu buur laa moom Gawlo la. elle est fière Gawlo. yow tam nga fière. man tam ma fiesul ma doom. waaw ba tax doo may sa doom. maanaam ah, bàyyi ma daane rek bàyyi ma ah, accouché. non non non da nga da nga waaj waaj nañ ko nañ ko déglu ak raisonnement non li mu wax da ko ñemewu ko waaw non. li mu wax ñemewu ko kii man xàmmeetuma ko. non non je dis non attends. moom lan la je dis man doomu buur la. nee na doomu buur la buur lan. ah géer ah, la waaw sama maam ay buur la ñu woon. waaw di jiite dëgg. te kenn mënu koo effacé. waaw dégg nga wax ji. waaw ba tax na. di yéeg si kaw fas. waaw. nekkee buur. waaw comme Macky Sall nu mu nekkee président de la République du Sénégal. waaw non bul tëkkale c'est pas pareil. non c'est pareil. non c'est pareil. non non non tëkkale c'est pareil. leen mën doy. c'est pareil. Euh, Moodu Moodu bi ngay bi ngay wax nii. léegi ngay wax amatuñu nekkatuñu si waaye. di dañ hmm. noppi. voilà léegi nañu am na nga nekk gentleman. bàyyi ko mu yeggali xanaa ñi toog duñu kii. waaw waaw république bi maanaam ku ëpp mbooloo mooy nekk président de la République. nañ ko déglu rek hmm. nañ ko déglu waaw. Hmm. tubaab bi dañoo ñëw dindi loolu du royaume te ñu ngi koy am ba léegi. Mhm. soo demee Angleterre. dafa am ba léegi. Mhm. soo demee Espagne dafa am roi d'Espagne. ay dëkk ñag yi sax am na fa waaw dëkk ñag yi nga dem aussi mu am roi. Mhm. Belgique le roi du sud bien. genre yooyu ñu am benn xeetu éducation bi ñu leen di yar. ba mar naan du tax ñu naan petit. potit bi mooy lan mooy potit ma ne mar naan tax du naan potit. lan mooy potit. Mm-hmm. waa léegi waa léegi ngir yàlla Moodu Moodu nañu déglu s'il te plaît. mais bàyyi on t'a écouté on a même on a même compati. mais quand a même compati. ok c'est bon dégg nga wax mm-hmm. ma écoute dafa métti nga ñu bëgg nga bëgg ñu nga bëgg nga nopp nit. c'est bañ la ka may. y a des mots qui sont très graves. potit dégg nga wax ji. Mm-hmm. te plaît. waay dama y des comportements de princesse. il y a des comportements de de mabo. ah bon il a des comportements de géwël. Mhm. Mhm. il y fier de l'être. ñoo mhm. xam ne mën nañu tagg say maam yi maam yi maam loolu la ñu xam. lu tax ñuy xeeb seen bopp li nga nekk da nga da ngay fonk sa bopp. assumé nag mm. day fekk da nga say ñaaw. fekk da nga say ñaaw. ba mm. nga maa ma wax. waaw ñu waxal. leen teel a. non wiiri wiiri bi dafa. waa di waay may ah, bàyyi ko rek ci rythme am waaw tax may wiiri wiiri. dinaa wiiri wiiri. ndax bi moo sensible moo tax may wiiri wiiri. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw nañu ko déglu. sujet sensible. ku si nekk li nga doon rek na nga si fier. Mm-hmm. c'est aussi simple que ça. waaye dina am ñoo xam ne parfois dafa am yenn jikko yoo xam ne day am par exemple jikko jaam ci jaam kan mooy jaam waxuma gëlaw mooy jaam ne waxuma tëgg may jaam mm-hmm. dafa am na jam xeetu jaam tamit mm-hmm. Mm-hmm. ñuy waraate jaam ku ñu jënd nekk jaam fi la aw loo nga yow si éducation ba lay nekk nag mais mais ndeel li ngay wax noonu dafa am ci ci classe social yi loolu te démb la woon te suñu maam ya waaw waaw dafa nekk ci xeet yëpp waaw uh-huh. géwél yi am na ay jaam. waaw waaw waaw géwél yi am nañu tamit. waaw parce bu sensible. bu xam nga jikko. waaw bokkut ak juddu dara. ak xeet. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ñaari góor mën nañ jur jëmbale seen bopp lépp. ñu jur koo xam ne te yaa ma dégg tey euh, du leen jël si jikko. mais géwél yi géwél dañuy noob day am géwél yu noob. waaw dafay am géwél yoo xam ne am na lu détail yoo xam ne sa duñ si dugg. géwél yi tey. ak géwël ay ati at yaa c'est c'est différent te de géwël moderne balaa ngay jaxasook nit foog nga xool ban genre ban jikko la am man de sama maam dinaa joxe benn exemple waa Touba ak famille si ñu si bëri dem nañu jël jabar si Buur Siin moo jot jur famille si sa jikko ba dem jëli ko si jikko ba bu ñu am doom yoo xam dañuy am jikko yu baax. Mhm. dégg nga wax ji. waaw kon waaw. kon du ma ne du ma may sama doom li nga bëgg a xam. géwal wala tëgg je vais même pas répondre à cette question. Mhm. dégg nga wax ji sa dépend si degré bi ak ban xeetu nit nga dajal. Mhm. moom actuellement mi ngi judd je pense xamuma ko bu baax mais ni mu ko déggee muy wax Monaco la juddu wala dafay kaf rek. <laughs> ñeeño pire la. day kaf rek wala. je suis la la judd non non non jamais jamais. donc <laughs> s'il est né su fekkee s'il Monaco. bien sûr avec une éducation de là-bas. arrête bon bon bref mais boo nekkee géer bu noble nekk sa high class niveau bu mag mais mën nga takk géwél buy wayaan xanaa xale bi dafa daggul rafetul. mais mën na dagg rafet gën a tàng ñëpp ndi wayaan nga nopp ko ah mais l'amour amul ay géwël laak amul ay dafa am ka mani on a vu film boobu la fille là c'est une noble bu ngand mhm. booy bi nekkoon ci ci sous-sol yi baadoo le bi amour bi demee booy bi dafa dem ba dee pour moom mbëggeel bu amee ay niveau amatul ma ne niveau ma ne su amoon le le le truc là euh, reine d'Angleterre bi doom ji le prince là du dem takk ki mu takk. Mégane il n'allait pas l'épouser bu fekkoon dañu soon ay ran rek lañu doon xool. ak sang non mais attendez. Sénégal du ñu. d'où l'importance de l'éducation. yooyu du ma see kii day. Ah, woyaat du ma see kii parce que kutu euh, sawara du ma see kii. d'où l'importance de l'éducation. waaye ma ko dafa am seen ràbb. Hmm? xam nga dañuy jaawale dafa am koo xam ne day woyaan mais ràbb yi duñu woyaan. rab yi moo ñuy liggéey mooy waa kër alaaji Yande Diop mm-hmm. njuga ñere Njaay ah, saara xari ngoone non liggéey liggéey ñoom ñoo tudd géwélu rab yi ñooñu sa a ah, waaw waaw sama jabar du ñoom ñoom waa kër Pape Alaaji Yàlla Diop Njuga Njëra Njaay Saara Xari Ngoone maam Gànna Biraan Diop ñooñ duñu woyaan parce que ñoom seen yéen àdduna yi dañ koo liggéey mhm. duñu woyaan bokku ñook voilà la ñuy woowee géwélu ràbb yi mooy ñi am métier mhm. kon xam nga yëf yi dafa jaxasoo mhm. géwél ci biir géwél yi nga xam ne ñoom duñu woyaan ñoom dañuy toog ñu di leen woy ñuy maye est-ce que ñoom di leen takk kuy woyaan nag ñoom ñoom nag ñu si bëri Ndey Diop Baay Diop ku ma ndar sàmma ndar la ñuy wax lawbe gajaga gajaga saw saw <laughs> ñoom loolu la ñu xam. <laughs> Eh, dëgg débat bi dafa dafa sensibiliser. Eh, lu gën laa lay expliquer li ma xam laa wax waa kër Alaaji Yaan ñu ci bari laa ku mandar sa mandar dafa mel ni comme ñun tukulóor yi am na ñuy sëy ñoo xam ne. seen ñaari yaay bokk ndey ak baay kii mooy taaw kii ci topp mhm. àll ni mu takkee faama noonu la demee mhm. pourtant say yaa ngi tas foofu aussi de non foofu ñun nag suñu kër tubaarkàl la ma ni <laughs> waaw kay déggéey <laughs> say yaa ngi tas eh, dégloo ak dégloo nga ne lan yow ma ni say yaa ngi tas fépp géy ak géy dañuy tas nga takk sa doomu bàjjan ngeen tas nga takk sa doomu nijaay ngeen tas mhm. tas yi fépp la am Mhm. te man gis naa ñoo xam ne ñu takk seen doomu bàjjen boobu ba léegi tekki wuñu dara avancé wuñu nga mhm. <laughs> gis benn géer dem takk benn géwal tekki ba nekk milliardaire mais Modou Modou doom bu jigéen bi ku ñëw may ko ko nekkal julit si tu es un musulman boo ñëwee ma bàyyi la jabar ah. man sama doom yow nga ne doom bi dañ la ba nga may jabar kan kooku bàyyi bàyyi bàyyi yaay bàyyi bàyyi yow wallaay mais n'oublie pas mes principes ba mujj divorce Modou foofu principe amatu fa yow Modou arrêtel bi mu ñëwee dama ko téye normal mais bi ma demee ba ni ko nag yow doo gore ba dee gore pour lan ah, gore ba dee bu muy def ki du bàyyi mais lan la def nga bàyyi ko ñëw si yow nga nga nga nga ko après bay divorcé moom dañ ko mujj mais arrêté bu leen ko am na ñoo xam ne gore ba dee c'est pas parce que détail du tax ñu bàyyi. non non non non je suis pas d'accord c'est pas parce que dama bàyyi sama sama famille ñëw si yow rek que tu dois accepter tout ce que je fais. waaw waaw mais mais ah, mais gis nga gis nga gis nga Pendo am na fi am na feneen foo xam ne mën nañu ko laal. Mhm. fii Sénégal ngay gis. murit bu ni duma may sama doom sama doom Tidiane. voilà wa gis nga gis nga ndoy ndoy doguma la fii Sénégal ndoy benn samedi loolu façon diine. ndoy benn samedi dama laa dégg. waaw may may nekk nii di déglu ma déglu rajo ma dégg ngay ne ngay am koy xulool ba mu dugg naan waa ñun ay doomu soxna lañu xaw ma la ngi xuloo waaw man loolu loolu man la dafa am ko ma woo en direct naan ma ay waaw ñun doomu soxna yi man ko lan mooy doomu soxna mm-hmm. mun ma noo ñun mooy doomu xaw ma surtout sëriñ yeeg yu kenn xamul. Mhm. man ko sama yaay kenn gënu koo nekk soxna ci réew mi. très bien. ah, ah man de ne sama yaay moo gën suñu yaay yi ñun ñëpp. lool lool loolu nag laa doon xulóog moom man ko dañ bàyyi. mu dañ association doomu soxna yi man leen booy mu ngeen dugal ma ca de ndax sama yaay de kenn gënu ko ci réew mi. kenn gënu ko di soxna ci réew mi. loolu daanu c'est fii yi baata bi lañ war a baax man benn paa sama sama benn paa laa doon waxtaanal au jour maa ngi ñuy jàppante dafa ko bëgg doom ji bëgg ko bëgg ko may mais ku ko bëgg doom ji euh, tiijaan la mu ni du may doom ji du muy du may doom ji man ko góor gu ma man ko nga baal ma li nga de wax tegoo ko fenn du diine du lislaam seen Tuubaa sant loo ko maam alaaji sant leen mm-hmm. bàyyi leen di def yoo xam ne tey ji ëllëg da ngeen ci am ay duma yi yooyu moo am ci dëkk bi da ah, nga koy ñemee wax xoolal nga bañ ko wane wax loolu loolu mooy loolu lool pour lan la ah dëkk bi waaw aada lañ gën a dund ko diine. waaw moom laa leen ci intéressé rek. loolay dëgg. Euh, voilà les les les préjugés sont toujours au devant. duñu duñu religion dañ koy jël teg ko ne la jël li leen arrangé. waaw mhm. imaam du jëlee imaam Guèye. waaw mu ah, ah? oh. ne. Mhm. waaw ndax ko jàng gën ko sell gën ko ragal yàlla. am na fi wax day feebar. te mhm. wax bu feebaree noppi. noppi koy dégg war a wér. maanaam Sénégal booy xool. aada fi gën a aada la ñuy gën a dund mhm. que diine mhm. dëgg la mais bu doon dindi diine lépp teg ci yoon mhm. diine ji la leen ci intéressé rek yàlla may nañu ba ñeenti jabar yooyu rek lañ ci gën a intéressé ak gis leen ma ci voilà ak gis leen ma ci waaw dem jàkk yu bari ak yenn yi xam nga doon voilà dafa lu ko gën xam nga gën mooy yàlla dafa am lum ñu lum ñu lum ñu sàkke am lum ñu digal am lu ñu war a topp aada ak diine bokk yow fi tam li ngay wax yow diine ngay wax waaw ah. yaa ma dégg Leela Madior ma dégg xam aada la wax. waaw dina aada bu ci war a mën. xam nga ni xam nga ni su ñëwee aada day pousse fële. carrément léegi nag diine war a topp te bàyyi aada. mais nag seekan ñaar yëpp dañoo jël bu ci nekk lañ ci intérêt li leen ci arrangé rek lañ ko jël dafa am ñetti civilisation yu fi nekk <laughs> kenn xamul ay naar lañu kenn xamul ay tubaab lañu kenn xamul ay ay ay ceddo lañu te tubaab yi dañoo ñëw fekk fi ceddo bi ceddo ci Euh, arabe yi ñëw indi indaale seen indaale seen euh, tubaab yi dañoo ñëw indaale seen civilisation fekk fi ceddo ji euh, diine ji ñëw fekk fi ceddo ji mm. ñu indaale seen seen seen moo tax tey jii da ngay gis nit ñi doo doo leen doo leen mën a identifier sénégalais bi suy wax doo xam ndax mm. tubaab lay wax mm. doo xam ndax sénégalais lay wax doo xam ndax arabe lay wax ñetti ñii soo leen jeexee ci dëkk bi moo tax tey ji du ñu xam fu ñuy taxaw moo tax xeebante bi nekk partout moo mhm. nekk partout soo déggee tey ji di nga nit nee la waxee mhm. wax na cosaan ak aada mhm. ñun ay buur lañu ci ay fas la ñuy yéeg yooyu xew wi na ci dëkk bi yooyu yooyu yooyu yooyu taxawatul fii li gënga nga ndee la nit ki la mu ëppalee moroom suy sangu du ko sëmmi li lay dugg àjj gu dugal àjjana du ay yére ki oto ki fas woo yéeg ak euh, sa maama moo woon ak moom moo fii. mais mais Ndoye mais Ndoye ay réalité la yoo xamante ne. réalité yooyu ñoo tard looloo tardé mi nag exister comme loolu moo tardel Sénégal loolu nag moo tardel Sénégal. mais dafay nekk nag. diw lii man je pense que dañu war a ji waxtaan ak xale yi. Mhm. man doomu métis laa am ah. mhm. man am naa doomu métis ak tubaab weextaal. Mhm. presque bu muy un an léegi mu am dix ans. fale que ma préparé ko pour ñu xam ne dafa ni am nit yu ñuul. Mhm. ak am nit yu weex. Mhm. parce que un jour dem nañu simal mu am benn tubaab bu ñëw bu jigéen mu foog ne mooy yaay ji. Mhm. mu je viens de voir ma maman parce que tu n'es pas ma maman parce que toi tu es noir. et mon père est blanc. ma ne ko non je suis ta maman. et quand tu es exposé au soleil tu vas commencer à noircir. Parce que y a un mélange de sang tubaab et de sang noir. il a fallu que ñu bàyyi ko exposé si naaj bu tàng. ñu soog mu change changer couleur mu ne maman maman je commence à noircir tu comprends xale boobu xamul luy racisme. Mm-hmm. xamul luy racisme. Mm-hmm. il faut que nga koy expliquer. Mm-hmm. racisme lan mooy racisme. Euh, tubaab bi naka la ñu noote woon nit yu ñuul yi. lépp si éducation bi alors. Euh, lépp si éducation gis nga métis waaw kan moo taxoon di wax géer la ak maay nooba ak maay li lépp si voilà ñëpp waaf voilà bi tubaab bi ñëwee di sonal suñu maam yi kan moo taxoon ni man géer la ah wala man géwél laa wala man maa gën a pur géwél jiitu di dékku bali di moo gën a njëkkoon a dee sax mhm. waaw ku nekk dafa am rôle boo ci doon sànq loolu laa doon wax nekk dafa am rôle bi nga ci ci ci ci société bi dañ ko hiérarchisé ku nekk rek voilà ku nekk am nga ci rôle voilà voilà donc loolu nag waaw waaw géwél yee jiitu di bàq buur bi di buur yee fi ne ko daal di xare kon suñu maam daw suñu maam daw ñu waaw yaa ngi fi woon di nu xareel mais dama ni lépp rek wallaay wallaay mais du ñu xeex dañuy xeex duñu mës a xeex. <laughs> Ah, bu tàngee ñu daal am na xeex am na tàngaate boo xam ne dañ ne keroog génne ca kawam lañ jaar de. ah bu ñu xeexoon est-ce que dinañ. Alima demal demal. <laughs> yaaw <laughs> alors am na ku ñu tàgg naan ko keroog génne ca kawam lañ jaar de dama ni. usurpation. ñun mais mais Sénégal ñun suñu ca kawam lañu jaar. wóor na yàlla xam nga tey sax dañu waroon indi historien loo xam ne dafa dafa xam histoire Sénégal lu toog tamit. dama lay wax ñaari eh, baat suñu cosaan dañ ko war a xoolaat dama lay wax ne la dañ ko usurpé usurpé. mais nañu waxante dëgg. lu ñu usurpé. mooy dëgg man man man man kii kii kii. dégloo dégloo xarit bi nee na bi wooy nee ma war a yoon man loolu lu ma yéeme ji loolu. Ah, Jordan. ah déedéet man waxee ma côté boobu man man papu maamu Pape Cheikh bi pes commandant Louga ba pare dem añi ah, ma ko est-ce <laughs> eh. nañ ko arranger <laughs> mais jamono yooyu amuloon porte xam nga tey man su ma pesoon su ma jotee woon nag benn policier mën naa woo Bouba Ndour Bouba mën na koo xam ñu dimbali ma waaye jamono yi maamu Pape Cheikh di pes commandant négociation amul woon bu ko neex ko <laughs> ko pesee ba pare nga ne lu mu da koo pes ba pare dem ko ba pare terewu ko dem añ waaw mais añiwul après nga ne luñ ko def ah dama ni non loolu dañ koy lijjanti loolu <laughs> usurpation la parce que ñun dañ ñuy nax de parce que ma loo xam ko dama il ko waaw d'accord wax nii li muy wax nii dafa am dafa am dañuy dem di xool ba naan la waaw yow fii nga bokk man xeetu Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa bokk sama ay shérif la mm-hmm. dañ naan la yow xeet gi nga bokk hmm. yow ay dara nga waroo mën a sëy ak euh, géwél bi wala lii man bu ma géwél gi nobee damay sëy ak moom dëkk bi ñu bari ñu naan ay dara lañ ah, wax dëgg yàlla ñun suñu famille amul ko ci musuma ko ci dégg wax fa yàlla mm-hmm. xeeb sa bopp mënul weesu samay nijaay ay shérif lañu macha allah ay dara lañu sant ay doomi buur lañu mm-hmm. seen baay buur la woon loolu noonu gëmoo leen ko dundul leen ko ok d'accord Ndoye man fi ma bëggoon ñëw ak yow mooy tey loolu ginnaaw bu mu amee ba pare conséquences yi xale yi. xale yi dañu dem ba ci biir dañu amatuñu repère dañuy réer parce que xamuñu en fin de compte sur quel pied danser mm-hmm. waaw am na ñoo xam dañuy dem ba xeeb xeeb sax da ngay dem ba xeeb sax est-ce ay maam seen ay dinañ leen accepter est-ce que dinañ leen téye ni mu waree xam ne dañuy dem ba xeeb seen papa seen yaay xeeb sa papa ak sa yaay mënul weesu nga génn dakaar dem beneen dëkk dëkk dem Gabon tey ji changer sa sant sant Thiam fii Sénégal mhm. dem fee parce que complexe nga mhm. nga changé sa sant am na ñuy mhm. wër naan si leen sant am na ñuy wër naan ay dara leen sant te santuñu ko man sama baay dina ma jur wallaay woo jullit yëpp pour ñu tudd ma tudd ma Mouhamadou Ndoye Bane baayu yaayam rey xar mu rëy may taxaw naan di dem fenn di complexe naan damay changé sama sant ñu bari ñi ngi may ñi ngi seetaan di dañuy cent sant loolu ndax ndax problème mu kas yi mm. ngay gis benn xale bu jigéen bu tàng jër nga nopp ko ba dof mm. nga nekk tëggaw wala nga nekk mm-hmm. géwal bëgg nga mm-hmm. xam ne suñu xamee ne mbaay nga sant ah mm. ñu bari mbay leen sant dindi seen sant def ko mbay waaw ah, mbay ah, ak mbaay am na mbaay am na mbay bokkul am na mbaay mooy mbaay déedéet am na ñoo xam ne mbay leen sant mbay ay géer lañu am na ñoo xam ne mbaay lañ sant waaw non non man xam nga tey ji ku ci nekk ak côté ba nga dëkk man kajoor ga ma dëkk ah. am na mbay waaw am na mbaay am na ñu sant mbaay ñoo xam ne ay géwal lañ kee xam na ci dara kee waaw kee ne am na ci am na ci ñoo ah. xam ne ah am na mbuub yoo xam ne ay géer lañu waaw mooy sant dëkkul fenn maanaam par exemple mbuub mu la monsieur le maire de Serigne euh, bu Pire Mbuub la sant famille Mbuub famille bu mag lañu. ba ba ba ba ba ba xaali Amar Fall jóge jóge Fouta di wër fu mu dëkk ba mu ñëwee piir ñoom ñi sant Mbuub la fa sant ñi sant Baan ñi sant Wadd. ñu ñoo ko dalal foofu. kii soo kii xam na ci dara. mais dem ba nga xam ne tey jii yow da ngay sant Mbaay. sa maam maamaati maamaati maam Mbaay leen sant. nga dindi dindi accent sur complexe bi <laughs> dindi ko mu doon mbay. parce que da nga bëgg benn xale ba doomu doomu ndee la bëgg koo takk te ndee la su xamee ni mbaay nga sant du la may sa doom mais ndooy nee nañ nag bu fekkee danga bañ li nga doon dafa fekk nga gën caa ñaaw nag c'est a le problème da war a assumer c'est ça dañu am complexe individuel dafa am ñoo xam ne dañu complexe bu ñëwee ci town bi dañuy rusa wax ni géwal lañu wala tëgg lañu mm-hmm. moi j'ai des am am naa ñu ma xam dañuy bañ dañuy bëgguñu wax ni géwël lañu wala tëgg lañu. Mm-hmm. parce dañuy complexé. Mm-hmm. même bu ah. ñuy nekk ak nii luñ ko mës wax ni tëgg lañu. Mm-hmm. xam nga man Modou Gueye Gueye lébu Gueye lébu yi dafa bëri ñu sant Gueye. ñëpp géer lañu. man chaque fois dañ may laaj Gueye lan nga man la man man Gueye lébu parce que a lëndam. mais mais du benn lébu <laughs> ngi ni toog sa wet de war nga fi toog di jaay lébu naan briller de dolli lu ma dolli man sama yaay dafa weex tal sama papa ñuul ko. mais moo mon père lébu moi mon père il est gànjul gànjul sama yaay moom a sonal moo ñuuloon mais man c'est pas mon père il est grand et li génnal foofu donc pour wax ni pour wax ni affaire bi dafa grave ba pare ndooy bu ñu ñëwee si diine waaw su ñu ñëwee moi mon père il e clair ah et il est grand. il est fan. sama papa dafa xees ñoom yow dinaa la def lu garaaw nag bii di xam nga lu tax arrêté sa nga yow. mais sama papa mi ngi may dégg dafa njool xees. waaw waaw dégg loolu dama ne la yow nangul li ma faral mais sama côté papa laa bokk côté xees njool ba ba ma ma yegg. waaw Modou nangul lu mu la. faral eh, nangu na ko léegi nee na moom moom moom bijoutier la ñeeño la mais non mais mais dafa am ñeeñu européen ak ñeeñu fii bul jaxasee dama ni. si on revient à ci diine bi chaque année fii Sénégal. bàyyi ko dafa bëri ñoo xam ni par exemple ci côté yàlla. li yàlla wax ci nit ak nit. nit doo bañ sa moroomu nit. donc yow da nga dindi aada jël diine teg. mais aada bokkul su diine taxawee. waaw waaw d'accord naa ah day pousse. te li yàlla wax yëpp leen lañ si retenir surtout sénégalais mooy yërmande. li yàlla wax yëpp te dinaa ko def muy dinaa wéet ak yow teg la malaaka buy bind ñaari malaaka malaakal mawti di ñëw soixante-dix fois par jour ci yow chaque jour na ñëw soixante-dix fois tamit sawar na di xool ndax di nga euh, heure jot na wala jotul soixante mais ñun sénégalais bàyyi nañ fi loolu yëpp yàlla ni safara dina fees del waat ko dama koy feesal mais ñun tout ce qu'on hmm. yàlla bi rek la sénégalais yi jàpp ni mooy am hmm, hmm, su leen arrangé moo tax bi ma naan yàlla amul yërmande foofu laa doon waxee li yàlla wax yëpp ah tëkku yëpp ngeen bàyyi yëpp jël benn rek yàlla am na yërmande boo gisee nit ni yaa ko gën yàlla baax na boo gisee nit ni yaa ko di ko tam li yàlla wax doo ko def di def yu bon ci biir ci suuf si te kenn ku si nekk ñun ñii ñëpp boo wéetee jàkkaarloog sa seetu xam nga fi nga jëm Mm-hmm. parce que def nga loo xam ni la lay wóor ni yàlla du la ko baal. Mm-hmm. ok mm-hmm. am na solo il que ñu miser sur éducation miser sur éducation donc lépp rek ca base ba la. ca dañuy éduquer yar xale yi. d'accord yar xale yi suñu bëggee lii dañ. te mënul dañ léegi ah. ça c'est dans plusieurs siècles devant nous ah. ah. donc donc looy. conséquences yi nga doon wax. waaw yi li muy yàq dafa bari. li muy yàq déception. Mhm. yaakaar bu tas mais imagine Ndoye tey te je pense que loolu dañ koy gis de plus en plus ci réseaux sociaux yi da ngay gis ku dugg def anneau. Mhm. def benn genre ñu mu nekk ak nit ñu bëggante. xëy na comme euh, alima li muy wax ba ñuy bëggante xëy na yaay yëgul papa mhm. yëgul xam nga ñu dem ba. yëf yi yëf yi jël benn ampleur conséquences yi ñu ne leen du ci dal léegi ñooñu tey loolu nan lañ ko war a dundee est-ce que tey da nga war a dindi say waxu kilifa teg ko dem ànd ak ku góor gi après lan moo ciy am. benn benn conséquence a ngi ni toog nee na moom xëy na dañoo mujjee tas. foofu problème non dafa am ah. parce que des fois nga teggi say waxu kilifa dafa am solo de. moom laa lay wax des fois nga teggi say waxu ah. waajur topp sa xol topp mbëggeel dem say la mm. fekk du waaja. Mm. Mm. est wala dara man damay wax nga teggi say mm-hmm. sa mbëggeel topp say yow ku góor nga teggi say euh, waxu way jur dem mhm. takk ku jigéen ka la fay yaakaar doo ko fa fekk mhm. wala ku jigéen ki la nga fay yaakaar dafa dafa nekk lu garaaw gis nga dëgg neexul ba neexul mais gis nga des fois dafay baax ñuy topp suñuy kaddu way jur ndax gis nga mhm. ku wéet xam yaay kan te des fois ba des fois nga weddi say kay say waxu way jur dañ lay seetaan da ngay nekk ci problème da ngay nekk ci situation ñu lay seetaan ndax lan parce que dañ naan bañ la waxee eh xam olof Njaay dafa am wax yu bëri dañuy wax naan waa olof Njaay wax na wax ne nee nañ xale day yéeg ci kaw du gis mag toog ci suuf di seet lu xale dul gis des fois ñu wax la kàddu nga defe ne dañ laa bañ wala dara fekk wallaahi dañ lay séentul yow ëllëg parce que yaa tey wéet mm-hmm. déjà donc Alima yow bu ma la déggee yow bu ma la déggee xas yi waaw foofu laa bëgg ñëw parce que gis nga ñu bëree ngi toog ci sëy di muñ lu métti ca ko muñ la uh-huh. Uh-huh. fipp ba ñu fipp woon ak seen i lu métti ñu leen di xoxotal di leen naqaral di leen dund lu métti ca sëy ba ñu koy muñ xam nga lu tax ruus dellu ci seen i kër wayjur seen gor mayu leen ñu dellu fa ndaxte ba ñuy dem dañ leen a tere ñu bàyyi dem uti mm. keneen mu takk sëy ba wala dem ca nijaay ja mu takk sëy ba mm. alors tey boo tasee fan nga jëm fan nga jëm bu dee yow sa ngor mayu la nga génn am foo dëkk wala sa mm. ngor mayu la dara tey njaboot nga ak nit ki fan nga jëm sa njaboot mm-hmm. da ngay toog muñ ca sëy ba di muñ lu neex ak lu naqari ndax lan démb bañ la waxee déggoo say waajur dañ laa bàyyi moom nga dem alors tey dangay toog muñ toog yàlla toog xaar yàlla parce que kon kon kon kon dooy bu ma déggee alima bu baax ñu lay kon say waajur buñ la nee bu ci dugg rek toogal effectivement da ciy am solo lool dama koy faral di wax da am solo lool benn góor waxu waajur dañ koy déglu donc buñ la nee bàyyi rek bàyyi man dama contre ay affaire ay diw tëgg la ak géwël la ak yooyu dama ko contre mais waxu waajur lu jar a déglu la fii Sénégal benn góor sur terre bu mu la jaral bàyyi sa papa ak sa yaay. Hmm. la képp ku ko jigéen xale bu jigéen bu ko def ëllëg di nga toog jooy fu kenn nekkul. Hmm. mais tamit benn jigéen bu mu nangoo. Hmm. topp góor bàyyi papaam ak yaayam. c'est vice sax bu ko kenn nangu bis boo ko defee. tu vas le lu mu yàgg yàgg. ndoy ndoy je ne suis pas d'accord. waaw mais tu es libre su la neexee. je suis pas d'accord. waaw su la neexee. pas d'accord la ci yow mais dama ni wax ma la ci loolu ma lay wax. waaw parce que yenn saa waajur yi teg loo xam ne diine teg ko yàlla tegu ko. <laughs> waaw d'accord. mais man sama parent. am na koy wasin fële moom waaw samay waajur am na loo xam ne bu ñu ma ko teree. waaw te yàlla ànd ci mais damay bañ. waaw loolu man saa yu waxu yàlla ñëwee rek waxu waajur lay puus. Uh-huh. yàlla waxam bu ñëwee. waaw bu ñëw li yàlla wax. Uh-huh. su yegsee rek waxu waajur lay puus. waaw mais su waxu waajur. du ma bàyyi waaw déglu ma déglu ma yàlla moo. foog sa waajur saa bu baax man je vais pas sacrifier ma vie pour mes parents. du ma ko def. kooku su la neexee. ma lay wax benn man tey ji man tey ku mel ni man. lu sama waajur d'accord ci laa d'accord lu mu d'accordul d'accordul ma. nit day am kilifa kon ñoo ngi ci li ma doon wax nit day am kilifa ñoo ngi ci li ma doon wax carrément ku ne nga ànd ak kilifa ànduma amul kilifa jinne doon su ma nekkee góor am job mm-hmm. ñafeel sa je parle je prends mon cas man bi ma amee vingt ans laa génn sama kër baay. ñafe ji du sam papa moo a jox xaalis bu bu ma jàppale wala dara. Mhm. déedéet il m'a bien éduqué d'accord mais du jom bi maa ko wutal sama bopp. waaw ko ba mag d'accord gis bëgg muy jullit comme man. man ni dama koy takk sama baab ni ma doo ko takk mais pourquoi. mais mais di ma amee 18 ans laa génn sama kër sama kër papa. waaw am ñu génn 13 ans. waaw déglu ma mais ñooy mooy góor ñu am jom. waaw waaw déglu ma man à l'âge de 13 ans laa génn sama kër papa ak kër yaay dem armée ñafe ji ko waaw ginnaaw yar giñ lay biñ ma yar sa ci teg ma ci diine yar ma ci lépp ba pare di leen sax di leen gërëm man maa ñafeel sama bopp ba tool fii ma tool donc mais terewul boo bëggee gisee ki waaw déglu ma kooku man niñ may yare mooy même ki nga bëgg doo léegi ndooy dara Modou may ma léegi ndooy sama papa lu mu yare waaw waaw ah, ah. dem leen wuti soxna fu mu leen neexee. ah kon kon kon maanaam su ma la déggee tey su doon da nga bëgg soxna xëy na bokku leen waaso sa papa bañ doo ko takk tey jii su ma ñëwoon présenté sama soxna ni ko kii laa bëgg sama yaay. ak sama papa ni kii laa bëgg takk soxna. Mm. sama papa ak sama yaay. opposé wu ci du ma ko takk. ok mais Moussa la daal. non non waxuma ay ñëw dama daal suñu opposé. leer na non non Moussa ma daal non Moussa ma daal mais su ma daloon tey du ma ko def. su nekkoon ci cas de figure boobu. dama ne waxi waajur fii Sénégal jalu muus la. non non Badou boo waxee gis dara. non ah, ah, na solo. Eh, eh, eh. nit dina gën waajuram. nga ne doom day gën waajuram. waaw mais mais mais waajur bu nekk sax soo sañoon doomam doomam moo koy gën loolu am na loolu lay bëgg doomam gën ko oui da ngay juddu. Mhm. fekk sa papa li muy traité sa yaay yow boo màggee rek xam ne sa papa bi yaa ko gën. waxuñu sens loolu loolu beneen beneen level la loolu leneen la. man heureusement j'ai de bons parents. am na ñuy mais am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañu dogoog seen papa ak seen yaay ci loolu te loolu yàlla daf ci ànd. non non yow sa papa tekkiwul dara defalu la dara temps amul benn lu mu la mën a wan yow nga ñafe sa life tegu ci yoon ba xëy gis jullit nga bëgg ko nopp ko daf ci moom. d'accord na mu a la doo ko takk. parce que sa doom bi mais kooku non non ça dépend ci parents yi de. wooyi dama ne gi nga la ay doom xeer la man. Ah, loolu c'est pas valable c'est ci loolu. mais na doom nen la doom nu muy amalee tam noonu lay amalee ak doom oui on ban papa. dëgg la waaw papa bi la wutal yaay bu baax. dëgg la jur la wutal la tur bu baax teg def éducation ci yow éducation bu baax teg la ci yoon kooku su la nee déedéet da ngay bàyyi waaye papa joo xam ne tey dangaa jékki-jékki ba ba nga juddoo la la gëj gis ah mu xaar ba nga mën dara mu ñëw taxaw sa papa nga dem bëgg fee ab tëgg wala ab géwél mu naan la bu tudd ñooñu ñoo fi gën a impo mën a imposer mais ñooñu ñooñu sax wutee bay nekk xeer ñoon dund papa Ndiaye nee na nga waaw nañ déglu nañ déglu nañ déglu waaw xam nga dafa am nga war a ngi bëgg wax nañ ko may après ñëw ci yow Assane amour de jeunesse boo xam ne parents yi parfois dañuy conseiller bàyyi diw du sa nawle. wala mm-hmm. bàyyi diw. yow nga ne mooy waaja. Mm-hmm. nopp ko mm-hmm. ba cinquante ans après wala trente ans après. nga waa kii lan laa gisoon si moom sax. <laughs> billaay. yàgg na de trente ans. tiire 30 ans doo ko xool nga ko gisoon nga ko doon. parce que Modou waxuñu ko tiire ah waay kenn waxu la dara da nga bàyyi rek ngay dama sa bopp. waaw foog ne mooy waaj a te waaj tiire ba ci ngay doog a toog daal di xool kii fan la la. waaw fekk diggante am nga yeneen fii fekk yow xam nga déglu ma rek. waaye nee na jeexal na waa ji dama la fekk si diggante bi non non non amour de jeunesse laa la wax. amour de jeunesse la lay wax nekk tu as eu 20 ans. tu mm. as été amoureux à l'âge de 20 ans. premier ah, amour. moi j'ai commencé à 15 ans nga foog ne que c'est l'amour. c'est pas de l'amour c'était pas de l'amour. ah si diggante bi nga gis koo xam ne. da lay fàttaloo sax. wallaay ngay a xam lan mooy amour en que tel. nekkat yow kii du touche. wallaahi toog ci 30 ans ah, doo nga xam ni kii lu ma doon def ak moom. waaw oui parce que entre temps jot naa. ngeen doon def. exemple pas 30 ans non un amour de <laughs> jeunesse. qui a duré après dina wax kii wala dafa. tu n'as pas tu veux pas comprendre. <laughs> da ngaa bëgg comprendre li may wax. dégg na la de moo la gën a dégg. Ah. non non dégg na la foog nga ne kay waaji la fekk du waaji. wax dëgg fekk du waaji. fekk du waaja wallaay du waaja. mais nag gis nga ndee la le conseil des parents. mais doom yi ñooy très important très important ñoom dañuy gis loo xam ne yow doo ko gis. doo ko gis loolooy dëgg. wallaahi da ngay gën a dëgër bopp parce que xamuñu tax gis nga gis nga nit bu bëgg instant bi nga bëggee doo dégg doo gis yow sa bëgg bi rek ngay xool eh, gis nga nit ki bu ñaawee yow rafet ngay gis ci moom <laughs> bu sikkee doo gis sikki ba na patt na nu mu mel rek yow doo gis xam nga looy gis foog naan sama jantal bi sama coof bi il est dafa rafet <laughs> yàlla xam na ne moo gën a fi ci àddina waaye xam nga kañ nga koy gis boo demee ba yëf yee jeex nag. ñu yëf yi metti waaw kon man kii laa bëggoon. waaw man kon kii laa nekkaloon. mais ba moment boobu nga remettre lépp en question moment boobu raison moo la dul fekk si. léegi nag waajur mi toog ci kër ga am raison di wax ak yow. dafay am solo nga koy dégg dafay am solo nga koy dëgg waajur eh, mi toog ci biir mi nga xamante ne amoo raison xool nga topp nga koy déglu waajur lu nga mag dafa jar a bàyyi ci même mm-hmm. a bàyyi mm-hmm. na nañuy bàyyi xel suñuy waajur dafa am solo yow kan ngay tàllal dama am alima loolu dafa def <laughs> ci mbedd mi alima léegi nag li ñuy def mooy pendo waaw dafa nekk ci mbedd bi loolu ñëpp xam nañ ko képp xam nañ ne heure bu la sa yaay wala sa papa waxee la bul dugg boo duggee di ci gis dama ne moo tax ku ne war a sa famille. tamit dëgg waaw xanaa kon sànq li ma ko fekk. wallaay wallaay wallaay loolu bu amee coow dina am. ah mais loolu xam nga xol. adduna bi dafa changé. xam nga xol kenn du ko diriger. xol kenn du ko diriger. xam nga ñeeño am. wallaay xam nga fu problème na toog fa mu war a toog. waaw léegi bu dee ku nekk na toog fa mu war a toog ko nag. Mhm. ne moom itamit gëmu ko. waaw kon nu ngeen di def waaw loolu am na du ñëpp ñoo gëm affaire kaste am na ñoo xamante gëmuñu ko. am na ñoo xamante ne ko. léegi yow bu fekkee da toog ne waa ku nekk na dund fa mu war a dundee wala ku nekk na nekk ka mu nekk waa man mi toog na nag am envie génn gawlo gi wala bëgganteeg géwél bi ah. nan ma bàyyi ma sëyal ko àddina alima alima alima barke xalifa Ababacar li ma lay wax ni dëgg dama lay wax ne la barke Serigne Babacar ci biir lawbe yi jógu fa ñeeñooy seen biir jógu fa gaawula da da da yax bu rëy yi ah, jógu fa boo sëyee koo xam ne amul dara dama lay wax ñu koy dund dafa bari lool lool lool lool mm-hmm, man dama mm-hmm. ci am ay xarit ñu koy def tem ci Facebook bi mm-hmm. da nekk gaawla la ba ba pare nekk ñeeñoo dañ naan yaa nga la waaye ba tax xew ma xeebel day dugg nga sant ma sant Guèye ñun ñaan ñëpp ñu bokk fa dara ci gi cawaan maar sa yaay buy ñëw day indi ay fukki a dañuy dimbalante suturaalante ci biir te kenn ko yëg waaye yow géer bi wala yow maa boobu naan fa sëy mhm. terle ba ngoon ñu ne waaw loo xam ñu njëkk a yaayam indi na fa dara leer laa la wax. <laughs> waaye ta jërëjëf wax ak gaw la li tax mm-hmm. jeex na man je suis waaw waaw. maa la ko bar ay lawbeeg yooyu yëpp ci yow lawbeeg ñoo a garaawle. dinañ ci ñëw ci lawbe dañuy jox Assane Assane sànq amoon na lu mu bëgg yokk tuuti rek. nga nga nga nga yokk rek ñu daal di jàll ci deuxième morceau bi waaw. li ma doon wax rek mooy euh, daam côté boo xam damay ñëw ci côté Modou Gueye Modou Gueye waaw parce que waajur lu for la d'accord mhm. waajur da nga koy jox cër mhm. waajur da ngay def bànneexam waajur da ngay góorgóor ba làq ngërëm mhm. mais waajur tamit dafa war respecter choix doom surtout doom joom jom ah surtout doom bu am bu jom nit dafa am choix te choix nit ki da nga koy respecter sa doom bu fekkee ki muy bëgg nekkul tey ku yàqu wala kuy taxawaalu wala koo xam te yaa ma dégg mais nekk nit ku baax yaa ma dégg am na am bàyyi nekk gor mais takk ko. macha allah man sama doom ñu ngi sama kër am naa doom yoo xam ne man nañu takk jabar am naa doom yoo xam ne mën nañu sëyi. Mhm. dama leen leer dama leen ku ciy tànn ku ciy tànn koy séer na ko xool ku ciy tànn. Mhm. parce que ku fooy tànn ba indi ko moom laa lay may. Mhm. man man loolu man loolu sama gis-gis la. macha allah la li yàlla wax. amul gën amul daal. loolu la yàlla wax ayca Assane je pense que message bi jàll na alors ci loolu nag euh, ban deuxième morceau nga ñuy proposé. waaw damay ñëw rek dugg ci benn euh, ñu def salsa rek. Eh! <laughs> Modou. allez tey eh, ñu doon moom day jóg man ak moom dañuy saxtaan ba mu neex man ak yow. non c'est que damay sumi talon yi damay fo. <laughs> ah njaboot gu sew naa ñun daa amuñu njaboot ñun. ñun de dañuy taxawaalu lii rek ñun amuñu njaboot amuñu dara. eh. Alima moom fecc la yanu. nga war a gane saa bi neex na dama laa ne nga jóg ñu fecc nga bañ nee na dafa fàtte tabouret bi muy taxaw pour ñu mën a tolloo ma a xam nga proposé nga ko mu bañ ndax moo duggee dafa am nationalité yeneen dëkk mais bien sûr fan la nationalité européenne la waaw doo dem moo duggee nga dimbali <laughs> parce que li ngay déjà yow sa esprit amu fi. Ah, sa xalaat amu fi sa ah. jëmm amu fi. sa sañse amu fi sa corpulence amu fi. sa coiffure moo duggee ñibbi. tey dafa def sax sant bi donc coiffure dafa dafa. Eh, tey daa def tey la def tey ree bi la génnee ree bi. ree bi tey daa def ree ree la def tey. waaye dañu bi comme moom nag yoru kayitu fii tamit Macky Sall war na jël loolu ñaan na Sonatel nit mun taam. dëgg dëgg yaa nga xaw ma envers. voilà Pendo alors euh, euh, di duñu euh, juste avant que nag xam naa lañ dese ci ay minutes bëriwul donc di rappeler juste que ni ñi nga xamante nag ñoo accompagne ci émission bi muy Pack Foot nee leen Pack Foot euh, mi ngi nii ah. mhm. alimentaire lay def gis ngeen ko mu ngi nii day def vinaigre li nga xam ne mooy moutarde couscous vermicelle macaroni loo doon wax ci vermicelle yeeg macaroni bi oh. sànq <laughs> moom daal lii nii <laughs> mooy ñoom vermicelle yeeg diwlin yeeg. waaw vinaigre yeeg gii. waaw waaw bu pare nan ma ko yóotul ca ginnaaw maal ba rek ak diwlin bi waaw. ñor na ma lool waay diwlin pak ma ko yóotul ca maal. voilà donc produit yëpp nag euh, euh, li nga xamante ne euh, pak food aussi day defar yeneen day defar li nga xamante ne man bëgg diwlin buuba xam na li may wax. da nga bëgg man produit yëpp presque man diwlin moo ma ci dàqal. na fi may waxee. Ah, dama bëgg ah, buuba man dama bëgg diwlin mooy maanaam mais lu tax hayyo man dama bëgg diwlin. buuba partagé information bi continue continue walaat nga ci bëgg un litre bi wala cinq litres bi wala. waaw ah, bu diwlin kay comme dama bu bouteille bi lu ma gën a rëy gën a baax ndax day gën a yàgg ci man. <laughs> lii de doo ko yóbbu bii but bi nga koy bayoo kii mi tamit ñëpp koy bàyyi. Eh, eh, xam na. ah de eh? de buuba de. Ah. loo koy doyee dama bëgg diwlin rek. non mais lan nga koy doy laa wax. Ah, ay bëgg nga lu bon di diwlin. waaw ah, dama bëgg diwlin da nga xam. diwlin nga bëgg nga ne. ah, ah dañ la koy tuur bi par exemple tey man su ma jëloon diwlin bi koy tuur. nga ni nga ni nga ni. <laughs> Eh, eh, bi leer. man xam naa ne Saare laa kar naa dinaa génn fi autopolice jël si ma ci buntu télé bi. na fekk ma ñibbi rek dan maa yónni koy tuur laa wax. ah waaw waaw dina ma neex dina la neex. waaw ça ça j'aimerais bien. te nag ndeysaan du du bañ mukk moom day nekk ci bi de. coro man ko ngay toog di xeet ay rosi <laughs> donc euh, togg rek ngi nii vraiment euh, fu ngeen dem di ngeen mën a am. Mhm. li nga xamante ne mooy produit bi ci grande surface yi lépp day def aussi li nga xamante ne mooy. ay euh, produits comme day def soble di def pomme de mhm. terre spaghetti mhm. vraiment pack food daal neex na sell na waaw lépp fu ngeen dem rek vraiment di ngeen ko fa fekk mi ngi nii sell na ah day yokk wér gu yaram day day def lépp nga xam ne mooy ay cholestérol ak ak yooyu yooyu mhm. vraiment set na sell na mhm. yooyu dañ ko xool donc pak fu da ngi nii macha allah euh, dem oh. leen fa vraiment ko nee naa leen fépp ngeen dem Sénégal na fa alors sponsor yi ngi ñëw nang par nang gars yi ñu ngi ñëw prestige déco aussi mhm. ci sponsor yi lay la macha donc ñoom nag gis ngeen euh, vraiment euh, dafa war a dañ sax changer décor ah, xam nga gars eh aussi ñëw na jàpp ci combat bi xam naa ne prochain prochaine émission di ngeen gis ay affaire yu bees bees ay ah xam nga Moodu moom black la def te black bi dafa am lu muy àndal. ah Moodu da nga bëgg ñu changer le plateau defar ay yëf. waaw man ak yow ñu bokk man ak yow ñu ah, bokk. ñu bokk peut-être quand c'est neex daal c'est kakatar. ëpp na ayca <laughs> donc euh, Prestige Déco incha allah ce sera pour bientôt alors li ñuy def nag Ndoye da nga bon yi. Mm-hmm. ndooy tey daf ñoo gate yee ëpp na ndooy daf ñu indil ay bon déedéet kay Katisaar naa neex de. Eh, yow mooy yow. <laughs> tukku sa bënn saañ ba réer la. ëpp donc euh, ndoo euh, la lii nag euh, defe naa même góor yi sax mën nañ ci am donc lii nag. Kimberlite Kimberlite. Kimberlite ah ok ah ii la ma foo ne ah, en anglais Kimberlite spa. waaw voilà donc Kimberly Spa nag euh, moom vraiment lépp lu nga xamante ne day jëm ci soin du corps visage. Mhm. vraiment euh, bien-être daal lépp lu nga xam ne day defar yaram di ko noddanti di ko setal ndoy ndoy ndoy tey sa kanam gi dafa leer. non ñoo wàññi sama ñaawaay bi temps yi. alhamdulilah nii la mën a demee kay man naka jekk ma ne am nga foo jaar. ndax soo ma daan jege da ngay nin bat. ndoy daa musa rafet ndoy musoo ñaaw bari baa na fa jaar mais ñii. Uh-huh. ñii daal euh, ñi ngi fekk booru. donc Kimberly moom xam naa ni ndeele dina fa jaar. voilà Kimberly Spa donc moom nag maye ay bon voilà maye na uh-huh. ay euh, soins capillaires bon manucure prothèse ongulaire euh, voilà donc euh, bon soin du visage donc yooyu yëpp maye na ko waaw ci kanam rek comme yéen ñëpp uh-huh. waa plateau bi am ngeen ci. Uh-huh. Liberté 6 la nekk. donc numéro de téléphone bi 78 190 65 94. wala nga def 76 503 94 94. donc Modou day dem Ndoye man yaa awa maa ci biir Ndéla. tamit na ci boobu yi aliment na may demee yëpp na nga ne ban nga léegi nii bébé tu préfères quoi là <laughs> xam nga xam nga Sénégal ñun ñu sa baal leen ñu te respectable ndax ñuy génn ci tam bi waaye ñii nag ci lañ bokk ndax ñoom ñooy may doole émission bi xam nga waa Sénégal yëpp nee nañ que man dama lay charmer te xamuñu yëf yi nu mu dewee que tu me suis je te c'est c'est ça ah c'est ça ah du ci sax gént <laughs> pour sénégalais ñi ne ci internet bi di commenter xam ngeen li ngeen di wax du gént la man sàmmeewuma ko xooluma ko lijjantiwuma ko moom moo ma topp ba naan daf may génn fu ma dugg mu dugg fa. man sama la du yaa fekke fii. est-ce que ndax jege gim la jege rek li génn ci. raayal sa jë mooy takk ko après fase ko. là je sa gis nga bari nga sa jë wala une semaine wala. xam nga fase bee gën a neex imagine ne Modou Gueye fase na yaaw boobu buzz. <laughs> boobu neex may dox di bonde. du ma la ko may de fekk ah, maa ngi dund. waaye yow déggoo Pendo dafa wax am solo. nee na moom li muy bañ yëpp mi ngi ci man maa la ko wax te ñu des sax yow mën na doon li nga fàtte sa jabar yëpp yow loolu Modou Gueye Modou Gueye. voilà xool sa jabar yi li nga leen fàtte yow ñëw sa sa fàtte yi nga fàtte yëpp. li ñu baree noonu ba billaahi ñu ngi leen fasee loolu lu ko gën a garaaw ne ci kii. <laughs> voilà donc euh, cinq minutes de délire la woon voilà donc ñun moom xam ngeen ne dañuy génn fii jaar dugg fii voilà donc di remercier sponsors yi nga xamante ne vraiment ñoo ñu accompagner nee naa leen euh, prestige déco dina ñëw incha allah daal di jàpp ci combat bi alors euh, bon yaa ngi nii si kanam incha allah nañ ko distribuer comme ça ñu dem fa daal di def ñi def soin capillaire ñi def soin du visage ñi def massage ñi def pédicure manucure voilà cela va de soi alors Ndoye mm. léegi ñu ñëwaat ci li nga xamante ne mooy sujet bi mm-hmm. doon wax ba tey dañ nekkoon ci conséquences yi mais gis naa ne euh, xuusuñu ci torop dama bëggoon ñu ñëwaat ci ndaxte tey am na ñu nekk ci situation yu mel noonu. Mhm. vraiment euh, bàyyi yaay bàyyi bàyyi xëy na seen bëggeel jiital leen ñu dem ànd ak ku góor ki est que ku góor kooku ñuy choisir. est hmm. kooku dina mat place su yaay boobu mu bàyyi est kooku tey dina fees place est-ce tey. kooku xam na ampleur li nit ki bàyyi. loolu day répercuter dama koy waxaat encore une fois. parce dama mm-hmm. gis ñu ko dund. dama ko gis. am ñoo xamante ne xëy na bu ñu bu ñu bu ñu bañee sax. ba dem kii doo fa gis seen benn mbokk. du fa gis mm-hmm. seen tànk. Mm-hmm. doo fa gis papa man loolu gis naa ko jaxara. doo fa gis papa doo fa gis yaay. xëy na début bi nag dina metti wala ñu dem ba ci biir ñu résigné wu ne ok d' accord famille la doom yi xas nañ am na ñoo xam ne moom dañuy rëy rëññee. dootul amati fenn. foo jaar ah vie ñoom. c'est que c'est que c'est que c'est que thème bi comme li ma ci waxoon ba léegi sama position bi ma am bi ma ci am laa ci war am mm. mais des fois dafa am yoo xam ne fii Sénégal toroxal say waajur la mm. te ku góor ki sax du la respecté man mm. Ndoye Bane su ma ñëwee di takk doomam ndee la samay waajur euh, ndee la bañ doom ji dëgër bopp dugg ci dugg bàyyi yaayam bàyyi papaam topp ma <laughs> man sama bopp man sama bopp soo man soo moytu du ma du ma la respecté mm. parce que man man su ma sama yaay ak sama papa waxoon naa la bàyyi dama lay bàyyi ah dëgg naa dëgg donc yow puisque sa papa sa yaay nee nañ la bàyyil ndooy baan mi mm-hmm. bu ci dugg fii Sénégal la Sénégal la bu ci dugg soo ci duggee lu mu yàgg-yàgg pen doo wax na ko lu mu yàgg-yàgg da ngay am problème te soo amee problème doo mën a retourner waat dem naan ko yaay nangam parce que dañ la ngay mujj dem ci say rakk papa ay sa rakk yaay wala waa mbedd bi ñeneen ñi wala nga dem ci rajo yi ñu nu lay lijjanti parce que ñemetoo dem mais ndoy kon le problème reste entier non mais problème bi du réglé wu looloo tax ma ni fii Sénégal dafa am nun ñu nun ñu mooñe mhm. am na ci lu baax am na lu ci bon problème mu du ma sëy tëgg du ma sëy géer yooyu loolu dañ ko war a teggi teg ko fële para loolu aadala boo xam ni taxawul affaire u xeebaate la mhm. mais beneen bi tamit euh, nu mu tuddati pa paaka ñaari boor la mhm. da koy bañ fee ah, nanga ko fii xam nga tey ji su la sa yaay nee bul dugg fii Mm-hmm. soo ci duggee mm-hmm. lu mu yàgg yàgg yàgg da ngay gis da ngay gis loo xam ne doo doo dootoo mën a retourner te tey ci góoru Sénégal gis nga yi fi xew dañ lay takk mm-hmm. am ak yow fukki doom ak ñaar fase la duñ ci sax gestu bàyyi laa njaboot xooluñu ci ni góor bi ban responsabilité la am te xooluñu ci yaat vingt ans sa yaay dañ la woon bu ci dugg nga dugg ci ba am ba ngiroo ca ngiroo ca mooy am nga ci juróomi doom mënatoo mhm. amatoo foo dem foo jëm ak sa juróomi doom waaja la ginnaaw sa papa bàyyi lay woykat bi naan bàyyi yaay bàyyi bàyyi bàyyi xamal la nag nag nga bàyyi loolu erreur la waaw nga ko ko ba mu am juróomi doom ajal nga ko ba mu juróomi doom mu xëy suma mu la ma wàccal la ko nag nga wàcc ko nag muy toog di taxawaalu c'est ça yooyu nag mu ca boppam moo bari ci dëkk bi Sénégal mhm. fase dafay yomb un deux mhm. trois góor gi fa te su ku jigéen ki ku jigéen ki fii Sénégal jigéen su bëggee fase jëkkëram de problème la. wallaay ñaata góor ñoo fi téye baatu jigéen pendant des années ku jigéen. ki ne la mhm. maa la noboon nobutu la ma sama baat mhm. nga lànk. Mhm. ma la sa baat ba pare dem takki feneen jabar Sénégal dañ ko war a régler. soxor la loolu. loolu dafi dafi dafi bari. jërëjëf jërëjëf mais ñëw. soxor la dañ naan ma ne gu yambar góor gu yambar dong la jigéen taxaw naan ko may ma sama baat bal man may ma bala nga naan sama baat ma laalaan la jëlal. waaye ma ne yow nooy baat dama ne xam nga fii lan moo fi am Sénégal la tudd ba ma la ma la ma la joxoon. waaw ma la ma la joxoon la wax ñu bëri ñu ngi koy dund nga xam ne da ngay da ngay souffrir loo ku jigéen ki pour yow ku jigéen ngay eh, ko fase naa la waaye mhm. bu yeexee na kaay nga jàpp ko ci diine ji ñetti weer yi nu wax ak xaw ma lan li ñuy wax li li li diine wax. non bu yetee tëbal. tey tey damay ñëw foofu parce que ñu ngi génn tuuti mais dañuy revenir tuuti ci sujet bi dama ne góor bi lan mooy responsabilité ci ki nga xam ne dafa bàyyi yaay bàyyi bàyyi kooku tey amaana même bu la doon def. naka sudul noonu ci biir kër gi yow mun nga ko war nga ko mën a muñal war ko mën ndax mu bàyyi ba jàmm la non non non man mi nga fekk de du ma ma damay demee ci esprit bu rafet man soo bàyyi sa yaay bàyyi sa papa jaay yëpp mën naa la loolu c'est un autre c'est un xam nga tey non non tey jaaloo moom jaaloo moom yow yaay xool ndax sa mën nga ko ko loolu moom man mën naa la muñal lépp soo bàyyee sa papa bàyyi sa yaay topp ma ngeen man dinaa la jàpp ndax li nga def def. mais lenn rek a mën a tax ma bàyyi la njaalo. d'accord njaalo moom kenn du ko. loolu moom loolu moom vraiment doy. ma ne man maa bàyyiwul benn góor laa wax dama ne man Penda Guissé dama part personnel sama yaay ki ne jóobu ma gën a lu mu mën a am ak sama papa Mamadou Aïssé ma ko bàyyi di topp benn góor. loolooy dëgg man bu ma gisul lu ma xam sax dèjà maag sama yaay ànd ñu tasi ko. <laughs> Eh, sama yaay du nangu loolu sax sama yaay merci beaucoup yaay. <laughs> parce que nag da ngay waxtaan ak sa yaay doom day waxtaan ak ndayam en kay am nañu réer ñu bëri. yaawa kilifa da ngay waxtaan yaay nga sa papa des fois nga bañ a waxtaan ak moom parce que góor mooy waxtaan ak papaam mm-hmm. mais sa yaay da koy jege di ko waxtaanal lu ci mm-hmm. bari xale yaa ngi koy def ci biir sëy yi seen yaay yéguñu ko mm-hmm. ñii ngi souffrir ko ah, ñii ñi ngi leen di wax dara seen yaay yégu ko am nit day wax ak yaayam man de sama yaay dama waxtaan moom de su ma gisul lu ma xam dama naan ko yaay ñëw nga xëy <laughs> ko lépp mu ma ah la demee man a ah, mënuma nan tëb amul eh. xaar non sama yaay daf may dimbale. sa yaay Modou Gueye sore wuñu de. non non eh, non non non eh. sama yaay du nangu yooyu de souffrance yi Modou non du ko nangu. yow da nga musul nopp d'accord nañ may Modou parce que ah. temps bi jeex na. te te te Assane dafa war a ñëwaat. Pello da nga musul nopp. kala da nga musul nopp. yii sama yaay nga kii dem bay jël choix am. kii feebar ba ñu yóbbu ko Samy kii ah. dem bay bàyyi waajuram ndax doomam. laaj dama laaj hôpitalu Samy. ki dem bay bàyyi waajuram. dégg nga ko budul publicité. non yow yow li nga wax amul amul man suñu mbokk gis naa ko ci xaru ndax ñu bañ ko may. ki ki mhm. mu xaru ñaat nit a yow tamit. waaw mais ma yeggali. aka bari. dafa fekk ndëgëreel nopp bi la ko dal ba mu xaru. Mhm. peut-être ci niveau boobu. Mhm. ayoo maîtrise la waaw ay tolluwaay la. mais soo jëlee décision bàyyi sa ndey ak sa baay topp benn góor ni nga amee fulla bàyyi sa ndey ak sa baay nga war a am fulla téye góor boobu nag. Eh, waa góor bi nag. man Modou Gueye. ah may ma ma yeggale ay waay waay jigéen na ñu daal yaay ñoo ñaaw may ma yeggali. doo ma may ma yeggali. vas-y mais c'est pas tous les hommes qui traitent mal les femmes. Mm-hmm. du góor yi ah, mais mais am na góor yoo xam ni seen jabar moo leen gënal seen yaay. Mm-hmm. nee naa la fii sama jabar bi ma déggal ma bëgg ko mu respecté ma sama papa bu ñëwee ne ma fase ko ma bañ. Mm-hmm. su ma nee nañu dogool ak moom mbaa nga dogoo man man ko papa nañ dogoo. Ah, parce que sama maam bu la ni woon dogool ak sama yaay man du ma juddu. waaw wax na dëgg waaw ah, foofu moom d'accord dafa am dégg-dégg boo bàyyee sa papa ak sa yaay ñëw ci man mani la man di bàyyi nga sa papa sa yaay mais dama am principe tant que yaa ñu topp sama ndigal toujours taatu leen bu la neexee béggee rek ba kerek muy di àdduna tukki mais bis boo juumee ba boole ci góor ah. je m'en fous nga bàyyi say papa sa yaay dama lay fase <laughs> ay ndeela <laughs> ma bàyyiwul sama yaay tey xam ñëw ma la c'est vrai nag thème bi quand même dafa complexe c'est trop sensible. te ndee la ñi boo leen toppee dañ la dugal ñaar ñi dañ lay dugal dee la bëggul ku ko yóbbu déedéet xam nga lu neex ndoy waa dañ ko dee la bu ne ko kañ nga may bàyyi <laughs> daa topp par exemple ndee la dee la bu ne ko kañ nga may bàyyi tubaab la waaw ndee la Aïcha vraiment ah nit yi doon baax ñu ngi baax ba léegi mm-hmm. ngeen wax ji mm-hmm. ànd yi daal dañ ko daal buur la moom waaw buur la buur la Oh, ah, dund ci doon baax ñu ngi baax ba léegi ndeysaan mhm. waaw donc and yi daal nañ koy rafetal te mhm. dërëm ak dërëm ñooy ànd mhm. waaw kay dërëm ak dërëm ñooy ànd de nga dugg foo xam ne war nga fa dugg ngiroo fa waaw ngiroo fa ngiroo fa waaw kon nañuy déggal waajur yi déggal waaw ñuy déggal bu baax waajur yi bañ a forcé parfois da ngay amul bi na fekk du amul dañuy dëgër bopp mhm. ndax parfois jigéen ñi dañuy dëgër bopp mhm. jël kenn rek teg ko fa rek foog ne mooy waaja fekk du waaja mhm. kon nañuy déglu te xam fa la ñuy teg suñu tànk dëgg la dëgg la waaw am na solo dañuy teel a wax dañuy waxtaan comme nu wax Penda dañuy teel a waxtaan ak euh, yaay yi ak papi yi ah bëgg naa diw teel a wax ñu xam kii fan la jóge te xam euh, seen famille naka la ñuy téye jabar am famille yoo xam ne mu ñu téye jabar Mhm. Eh, eh, c'est que même dërëm ak dërëm bi nee la. wallaay dañu wax ah. dama ko bu demee pour ma leeral ko nit yi tuuti parce que des fois boo ko dañ naan ko lu baree bari. loolu loolu la wax dërëm ak dërëm a mën a ànd. soo ko waxee dañuy foogoo ne ci xaalis la. Mm-hmm. Mm-hmm. mais du côté boobu koo tollool ngor rek nga mën a àndal. mais mën nga nekk géet am ngor géwël bi am ngor. ngeen am mais mi ngi noonu mais ñoom waxewuñu foofu nag ñoom dañuy waxee mani dañuy nañu waxante affaire fi mu méttee dañ ko laal waaye temps ba jeex na suñuy wax dërëm ak dërëm moom mooy ñu mën a ànd seen biir racisme lañ fa am xaw ma je peux même dire racisme <laughs> di nga voilà mooy ah loolu nag c'est dangereux loolu lay wax dërëm yàlla moo ni nañ ñu bëggante déglu ko donc ndeela dërëm ak dërëm mooy géer ña ca géer ña géwél ña ca géwél ña loolu baaxul yàlla waxul lool yàlla dafa ni doomu aadama yi julli di bëggante leen <laughs> waxul na ko di séparé wu wallaahi débat bi kenn dërëm ak dërëm bi leeral ko jërëjëf defe naa ne lii daal dañuy wax ci liñ ci war a wax rek sa géer ña kenn du ko jeexal débat bi je pense que le débat est clos li nga doon voilà doo ko voilà il faut accepter li nga doon voilà donc euh, ñu ngi remercier vraiment ñu nekkoon ci plateau bi yëpp temps bi nag moo ñu nee naa leen ñun dañuy ubbi débat bi rek lancer ko yéen ngeen yeggali kook seen nga xam ne ñu ngi toog seen salon ñi vraiment ñu ngi en groupe di seetaan ñu ngi toog seen kër waa ñi ci réseaux sociaux yi donc le mm-hmm. débat est ouvert ku nekk rek am nga ci avis alors je mm-hmm. pense que peut avec le temps hmm? affaire yi dina xaw changer mentalité yi. Mhm. vraiment ñu oyofal yi daal. pour mhm. xale yi nga xam ne ñu oh. bëggante. Mhm. ñu bàyyi leen ñu sëy xam ne lépp rek lépp benn la. vraiment lépp benn la alors euh, di remercier aussi ki nga xamante ne mooy équipe technique bi ñi nga xamante ñoom lay àndal à chaque fois ci Kakatar donc euh, caméra nag ñu ngi ci amoon Amza of Mbay euh, vidéo ñu ngi ci am Pape Mor son Aziz Soumaré Zal Koli ak Abdourahmane ah donc lumière aussi Abdou Boy maquillage remercier bu baax au passage photographe Baye Niass Baye Niass nag moom mooy def photo yu rafet yi ñu ngi koy mhm. remercier bu baax euh, de prod nag Ibrahima Cissé Cissé ñu ngi koy nuyu euh, réalisation comme tous les jours Pape Samba ñu ngi koy remercie bu baax a baax a baax di nuyu aussi di remercier suñu producteur Bouba Ndour vraiment ah Euh, monteur aussi Racine waaw moom mooy def émission yi montage yu rafet yi yëpp moom la ñu ngi koy remercie bu baax a baax a baax alors li ñuy def comme je l'ai di tantôt thème baa ngi noonu yéen a ko moom yeggali leen ko seen kër yi donc di remercier aussi assan Mboup euh, nga xamante ne vraiment ci disponibilité bi ñëw na ànd ak ñun ci ci thème bi nee naa leen moom lépp lu mu fi way rek dafa refléter ci thème bi donc yooyu yëpp nag euh, démb la woon tey soogee ñëw donc nee nañ way bu diglewul yeetewul ay naxaate la di remercier aussi Ndella mi nga xamante ne moom aussi vraiment ñëw accompagne ñu à chaque fois ñëw ci émission moom léegi ci kàkataar la bokk sax abuba ah, ci kàkataar la bokk ay ah, ah, ca voilà donc euh, Assane ñu ngi lay remercier bu baax a baax ah di la bàyyi rek nga tàggoo ak dernier morceau bi ñuy may euh, quant à nous on vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là portez-vous bien passez un très bon week-end au revoir waaw dëgg la yaay jàmm ñaan ngeen baal ma. macha allah euh, di représenté ñu àndal nag kii di Baboulaye Sokho. ayca ak Khadim Mbaye. Mm-hmm. ak René ñu koy woowee bëgg am na solo Assane danga may may cinq minutes ah. xam nga damaa foog ne ko mën nañu. <laughs> da ngaa neex kañ ngay arrêté. wuy ma remercier gaaw. ah na may remercier ëpp na ma dama speed bu ma woowee. borom entreprise <laughs> ba ñu remercier soxna Ndour Ndour Waly Mbergane entreprise bokk jom moo fi jaar. bopp bi ah. Bibram quoi fii soxna may maquillage ah. bi eh, comme d'habitude Thiané nañ bu baax Thiané maa lay jaajëfal ci maquillage bi bopp bi euh, soxna may Bibram coiffure sañ sa bi comme d'habitude rek soxna Ndour Ndour Waly Mbergane Racine dafay defal ku ne écritel ci suuf Pendo ay ca merci beaucoup man ma sa taak ma seer ndaak Baye Modou Kane moo jaar si grand boobu bu bi tubarkalla petite tête ba laay cheveux waaye ko ko defar mooy aram michu <laughs> mooy gërëm Marème Soda mi ma àndal sama ménage sama lépp waaye ma sa taak ma seer ndaak moo def grand boobu bi boobu bi laay cheveux seen numéro dina jàll waaw man c'est As créateur eh. As création le meilleur créateur waaw déggal lii Ndéla bon man maay maay habillé sama bopp. waaw waaw tout le temps. très joli 77 740 30 07. waaw agence ba waaw agence ba. ayca <laughs> Modou agence matrimoniale. waaw waaw boo xam ne affaire yu kase yëpp ñun ñëpp adhéré nañ dinañ segg bu baax. Mhm. boole ñu woon mën a ànd. waaw ku ne nag na nga fonk sa bopp. macha allah ku ne na fonk boppam Modou. Monaco. Mon. Assane bisimilah. amul génn amul sonn man ci kii.